والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ak yéen ba tey ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala toll ci suratul baqara di jël tey aaya 127 ba aaya 129 mu nekk ñetti aaya yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala dañul di ci fàttali jaami yàlla yi di ci fàttali yonent bi ak jullit yi ko topp xéewal yi nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala defal na ko baay ibrahim alayhi salaam ngeen bàyyi xel ci ginnaaw pour jigéen ñi la jigéen ñaa ngi taxaw ci bunt daara ji bu ñu mënee dugg si benn yoon ngeen bàyyi fële ci ginnaaw ci ruq boobu pour jigéen ñi la xéewal nga xam ne borom bi tabaraka wa taala mi ngi ko defal Ibrahima ci kawe bi nga xam ne kawe na ko moom Ibrahim waaye ngëm gu mag gi nga xam ne Ibrahima am na ko ak topp gu wér gu mu topp yàlla moom Ibrahim waaye moom yonent yàlla Ibrahim nekkoon ku màgg xemmem ci lu baax jëm ci yàlla tabaraka wa taala nekkoon ku bari yërmandi moom Ibrahim alayhi salaam loolu moo tax turam bi sax li muy tekki mooy Ibrahim li muy tekki ci Ibra ak ci saryaaniya mooy abun rahim abun rahim mooy lan mooy baay ju am yërmande baay ju bëri yërmande moom Ibrahima alayhi salaam ci tagg bi nga xam ni moom la ko Allah subhanahu wa taala ne ku am yërmande la ñetti aaya yi nekk suñu kanam yàlla mu ngi fay mu ngi fay leeralal di ñu won Ibrahima ak doomam keroog ba ñu ñëwee di samp fondement bi nga xam ne tey mooy néegu yàlla bi nga xam ne mooy njëlbeen ab néeg keroog ba ñu ñëwee yor seeni fil à yor seeni turel ak seeni peel ak seeni pic yor seeni niveau yor seen matière bi nga xam ne ñoom lañ doon tabaxe nan la ñu tabaxee kaaba gi moom Ibrahim ak doomam yàlla dinañu ko leeralal ci aaya yi nekk sunu kanam waaye yàlla dinañ ci leeral ba tey moom Ibrahim alayhi salaam comme ni mu ñaanee yàlla yàlla def ko jullit moo tax aay yi nekk sunu kanam mbokk yi bala ñu koy jël dinañ bàyyiloo xel mbokk yi ne loo am xam-xam am xam-xam loo am alal am alal loo mën mën mën foog ngay ñaan yàlla yàlla wërsëgale la njaboot bu baax kenn du leen wax mun ta yar wala ulul azmi mina rusul waaye jabaram ak doomam mi ngi safara kenn du ne mun ta de mais yàlla la tabaraka wa taala moo tax chaque jour dafa war a bokk ci say ñaan comme ni ñu koy jëlee ci aaya yi nekk suñu kanam comme ni gisee Ibrahima nee mu doon tabaxee dinañ lu góorgóorloo ci njabootam yar leen ak ñaanal leen yàlla pour ñu tegu ci yoon bu baax dina ñu gis ci aaya ba tey mbokk yi ñetti aaya yi nekk sunu kanam ne yàlla tabaraka wa taala nangu na ñaanu Ibrahim yàlla def na ci ay doomam comme ni mu ko ñaane woon imaam ñoo xam ne dañoo jiite jullit ñi ñu weex tal leer nañ ñu am tawxiid ba bokk na ci sax ñaanu ibrahim yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ñaanu ibrahima la bokk kon dinañ gis importance su ñaan gis importance su yar gis importance su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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم yaqulu jalla wa ala buur bi nee na wa iz fàttalikul yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa iz na nga fàttaliku yow jullit yarfa'u ba muy yëkkati kan ibrahimu ibrahim na ngeen fàttaliku is baat la boo xam ne dafa bokk ci baat yooyu ñuy jàng ci naxwu ñu tuddee ko zarf zarfu zaman lima mada min zaman daf lay fàttali naa la fàttalikul saa yu gisee is rek loolu la wa is fàttalikul yarfau ba muy yëkkati lan la doon yëkkati kan moo doon yëkkati ibrahimu ibrahim lan la doon yëkkati alqawaida fondement jamu qaida ma bayna alayhi aljidran min asasi wa nahwihi li ñu yëkkati mooy loo xam ne fondement baa ngi fa mais miir yi ci wet bi moo daan wala wàll yi ñoo fa nekkul loolu la ñuy yëkkati lan moo tax yàlla ne Ibrahima da doon yëkkati fondement bi ndax démb suñu tafsir waxoon nañ kaaba gi histoire am fu jóge mooy borom xam-xam yi nee nañ malaaka yi ñoo ko tabaxoon après waame yeeg ngelaw yeeg taw yeeg tremblement de terre yeeg yi ci aju peut-être na ci am yu laal kaaba gi fa mu nekk miir bi daanu fondement bi réer yàlla yabalaat aadama alayhi salaam na ko tabax ñi gën siiw nag ci àddina ne ñoom tabax nañ kaaba ibrahima mooy fee lu tax ndax yàlla moo tudd turu ibrahim ci alquran yàlla ne maa ko sant mu tabax kaaba gi loolu moo tax ibrahima alayhi salaam gën cee siiw parce que yàlla moo ko siiwal yàlla moo ko tudd ci quran al qawaid yàlla ne ko yëkkatil fondement bi la nga fi fekk yëkkatiwaat ko moo tax mu ne wa is fàttalikul yarfau ba muy yëkkati ibrahimu ibrahim alqawaid alqawaida fondement yi min al bayt ci néeg ci suñu tafsir waxoon nañ baatu bayt ñaata yoon la ko yàlla wax ci te yàlla jublu ci muy kaaba gi dégg fukki yoon ak ñaar da leen teewlu lim tabihu fukki yoon ak ñaar ci fukki saar ak benn yàlla di jullu baatu bayt yëpp kaaba gi la ciy namm gis ngeen si waxul al al kaaba mais al qawaida min al bayt ayu baytin alkaaba amaha allahu wa néeg boobu nga xam ne yàlla aar na ko waaye yàlla laabal yàlla aar na ko doomu aadama yi buggoon nañ ko toj bëggoon nañ ko ràppal gis ngeen am na jamono joo xam ne sax yàggul yoo xam ne peut-être lenn fii ci biir jàkka ji jumaa ji bu ñu fàttalikoo tuuti am na ay nit yoo xam ne dañu ñëwoon indi ay kees ñu ne ay néew ñoo ci nekk ndekki arme moo ci nekk ñu dugg ci kaaba gi occupé ko loolu yàggul dara yàggul dara ci ay yu passé rek matagul sax léegi ñaar fukki ay 88 89 keroog kaaba gi toog nañ ay fan kenn julliwul ah gis ngeen ay jigéen a ci woon lépp a ngi ci woon benn waaye bu doon woote Mahdi moo ko defoon bëgg a daaneel nguur gi daal di koy jaar foofu waaye kaaba gi yàlla moo ko aar xam ngeen ñooñu nan lañ leen génnee foofu bu ñu tëjee buntu yëpp ba nekk fa gaz lañ fa def mënatuñoo noyyi gaz lañ ubbi ñoom ñëpp ñu étouffé daal di xam ñenn ñi rëcc daw ñu rey leen genn wàll gi yëpp génn seen bopp ñu jàpp leen mu ñëpp dañ leen rey daaw loolu moo leen yàlla moo aar kaam beneen histoire bi mooy jàngeen ko ci Qur'an yàlla mu ne néeg bi sama néeg la fal du nañu jaamu kan la ñuy jaamu mu ne rabba haazal bayt gis nga foofu bayt la yàlla utilisé ban baat la ci nam kaaba fukki yoon ak ñaar yàlla di utiliser baatu bayt mooy néeg waaye namu ci lu dul kaaba gi kaaba gi ñaata yoon la ko yàlla wax ci alquran baatu kaaba loo xam ne tur bi la yàlla tudd ñaari yoon ci ban cinquième saar ci Qur'an ci suratul maida suratul maida ci ñaari aaya la yàlla wax baatu kaaba mbokk yi yàlla mu ne fàttaliku leen yow jullit fàttalikul keroog ba Ibrahima di yëkkati fondement néeg bi ndax moom rek la mu ne wa Ismail ak doomam ju tudd Ismaïl ndeysaan ñoom ñaar ñoom ñooy ñi yàlla may xéewal boobu Ibrahima ak doomam jamono yooyu doom ji xale bu ndaw la amagul woon juróom fukki at fanweeri at ak juróom jëm ñeent fukki at jamono jooju la xale bi toll xale bu ndaw ndeysaan ibrahima mooy baayam yaayam moo tudd xaajara jaam la woon bu ñu mayoon ibrahima buur Égypte moo mayoon mu jóge misra ismail li muy tekki mooy sami allah ku yàlla dégg loolu la ismail di tekki ibrahima lu muy tekki mooy abun rahim bàyyi ju am yërmande bàyyi ju bëri turu yàlla yi mu ne wax nañ ne ci turu yàlla yi la bokk samaay eh, ibrahim eh, ibrahim lan moo tax ñu ne dafa bëri yërmande dafa mos a nekk ci àll rek mu seen benn picc sex baat benn doomam di ko lekkal xam ngeen picc bi lekkal doomam da koy sexal day sex lekk bi amoon na ko fii ci put bi ginnaaw moom bu mu lekkee ba après li mu denc ci lay lekkandoo koy du yàbbi ci suuf doom ji far non day sex gémmi doom fekk bi lay sex ci dugal lekk allahu akbar yàlla ibrahima xool xool xool xool ba ci àgg rek ndeysaan yërmande daal di koy dugg bu bëri jóge ci moom jëm ci doomam yàlla ne ko reyal doom lu ndax xam ngeen yàlla wax ko loolu pour teste ko xool ndax mbëggeel gi mu bëggoon yàlla wàññi ndax tey gis na leneen lu mu war a bëgg waaye yàlla fekk Ibrahima muy ku ne kenn ci pas-pas bu mu gëmoon bi mu nee yàlla won ma nooy dekki la tuddee yàlla mu ne ko awalam tuumin qaala bala walakin li yatma inna qalbi gëm naa de waaye dama bëgg sama iman bi bu mu nekk di tremble di may am sikki sàkk may am dut waaye imaan bi damaa bëgg mu ne keng nafar jotaay yu mel nii nafar di teew ci jotaay yu mel nii di nafar day defar imaan allahu akbar allah yubarik fikum yàlla ñu yàlla bëril kon ñuy teew ci jataa yu mel nii ibrahima xanaa gëmoo ma wan ma nooy dekki la ku dee yàlla ne ko Ibrahima xanaa gëmoo mu ne ah kay gëm naa de waaye damaa bëgg li ma gëm dootul yëngatu li ma gëm dootuma ci am sikki sàkka li ma gëm dootuma ci am dut li ma gëm day sax dootul yëngatu ay kanam jaruñu profité borom bi tabaraka wa taala mu ne fàttaliku leen ba Ibrahima ak doomam tudd Ismail taxawee yàlla sant leen jox leen ndigal ne leen yëkkati leen fondement néegu yàlla bi rabba haza al bayt min al bayt gis ñaan bii nekk sunu kanam nii Ibrahima keroog ba mu ñëwee wax naa leen dim mu indi peel indi pikk indi turel indi corde indi fil indi niveau loolu kan moo koy yor maçon bi ñëw na mooy Ibrahim apprenti bi ñëw na mooy Ismaïl Ismaïl bagage yaa ngi ñuy teg yëpp ñëw na même fi muy taxaw sax ci chauffeur bi am na chauffeur mooy maqaama Ibrahim lépp indi na ko ndeysaan xanaa dana war naa commencé rek xaaral ma dóor ko mu daanu comme ni ko gars yi waxee wala avant tout dafa yëkkati loxoom ne ko rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim yàlla lii may def liggéey bi nga ma sant ma koy def maa ngi koy def de maa ngi nii indi naa yëpp maa ngi nii di jaxasa ciment bi waaye nag taqabbal minna yal nag ma ko mooy liñ doon wax sànq mooy liñ doon wax sànq ci raxba ak rëxba jullit bu ko yàlla santee dara mu koy def da koy ba bare boole ci xemmem ak ragal al xawf wa raja ci ñaar yooyu la jullit dund bàyyi na al xawf wa raja diggante yaakaar ak ragal ah waaw man lii may def est-ce que yàlla dina ko déglu est-ce dina ma ko nangu maa ngi nii julli est-ce dina nangu julli gi maa ngi nii woor naa koor gi fi ma toll nii est-ce nangu na maa ngi di naafila di dem qiyaam est-ce yàlla nangu na sama naafila bi ba pare lu mu koy jural mooy mu ñaan yàlla pour yàlla nangu xoolal Ibrahima indi na yëpp mais terewul mu ngi xamal yàlla naan ko man mënuma de yàlla yóbbu yaa mën matériel yi nag mi ngi nii bagage yaa ngi nii lépp a ngi nii birig yaa ngi nii bàyyiwul sax chauffeur fu muy taxaw mais terewul mi ngi ñaan yàlla naan ko rabbana yow suñu borom wala dugalaale doom ji dugalaale na doom ji waxul rabbi mënoon na ne rabbi parce que moom kenn la yonent la te ci ulul azmi la bokk mënoon na ne rabbi déedéet du moom kenn mooy tabax loolu moo tax mu ne rabbana dugal na doom bi yow sunu boroom man ak sama njaboot ak keneen ku dul ñoom yow yàlla yaay ñi ñu yar yaay ki ñu moom yaay sunu boroom taqabbal minna yàlla nag ñu nangul innaka yow anta yow assami yaay dégg kii ñaan al alim yaay xam ndax war ngaa nangu ñaan gi nga nangu yaay xam ndax war nga koo jël nga jël su la neexee nga jël bu la neexee nga bàyyi ko fële innaka yow yàlla anta yow kenn tawkiid la amul keneen innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla bokk na ci ñi muy nangul mooy ñi ragal yàlla te yàlla rek mooy nangu jëf keneen du ko nangu doo def benn bakkaar kenn baal la ko ku dul yàlla doo def benn tiyaaba am ku ko nangu ku dul yàlla julli wala nga woor après nga dem ci benn waay nga ne ko man de julli naa tey ji julli naa waxtu juróom damaa bëgg nga nga ma nga bind ko suba incha allah nga fay ma danaan la yow <laughs> est-ce que xëdd nga tey foog mu jéem laa xool ndax yow normal nga wala normaloo ndax li nga koy wax moom du mbiram mbirum nangu jëf yàlla la yàlla rek mooy nangu jëf te yàlla ñi muy nangu seen jëf mooy ñi ragal yàlla innama yataqabbalu llahu ku ragalul yàlla yàlla du ko jël moo tax jàngeen ci alquran yàlla mu ne ñi gëmul yàlla lu ñu def dama koy def pënd ak poussière wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuur ay gis ab yéeféer bu ñëw tabax jàkk jullit yi di tiit di kontaan yàlla mu ne duma ko nangu du am benn tiyaaba parce que moom gëmul yàlla ku gëmul yàlla sa jëf yàlla dala koy delloo ku gëmul yàlla sa jëf loo jëf lu mu baax baax yàlla du ko jël parce que dafa war a am lu lal jëf ci moo tax Ibrahima ne yàlla yow innaka yow kese anta yow gis nga da ko feddali tawkiid la assami yaay aji dégg yaay dégg lépp yaay dégg ki ñaan yaay dégg ki ñaanul yaay dégg ki la nangul yaay dégg ki la nangul ki wax ki waxut ñépp yaa leen di nangul assami yaa leen di dégg est-ce que nit mën na wax yàlla dégg yaa ngeen ci alxuraan nit jigéen ñëw na dugg ci néegu yonent yàlla Muhammad ay ngi rido moo dox seen diggante rideau rideau rideau saa ngi fii ndaw saa ngi fii ak yonent bi yàlla wàcc alquran nee na laqad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ay nee na wallahi damaa tiit maa ngee dend ak yonent bi ndaw saa ngi sëgg di wax man dégguma wax ji yàlla wàcc alquran ne moom dégg na wax ji kon yàlla mooy kan laqad sami allahu qawla allati yàlla mooy dégg haadi yàlla dégg moom yàlla moomu assami mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam borom xam-xam bu mag boobu tudd Saïd Hawa rahimahullah dafa bokk ci soññ bi muy soññ jullit yi rawatina jullit yi jàng alquran mu ne leen da ngeen di bàyyi xel aaya yi fu ñuy jeexee première aaya bi fan la jeexee as-sami al alim yàllaay aji dégg yàllaay aji xam soo jàngee lii lan la lay jural nga xam ne yàlla lépp la dégg yàlla lépp la xam ba nga normal xam na yàlla xam na la dégg na la sami alim gis nga yàlla bi mu yónnee Moussa moo Haaruna mu ne leen moo Haaruna mu ne leen dem leen bu ko yónnee ci Firawna ñu xaw a déngi déngi mu leen innani maakuma asmau wa ara dem maa ngi ànd ak yéen maa ngi dégg wa ara maa ngi gis asma maa ngi dégg gis nga sami daal day foofu la Moussa am kóolu mu daal dem ñoo ne Firawna yàllaa ñu yónni lu mu wax mu ne nga libéré peuple nga bàyyi la ñu ñëw topp ñu jaamu Yàlla mu ne kuy sa borom mu ne ko borom asamaan ak suuf ak li ci diggante bi na fan la taxaw rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fan la Firawna nekk xam nga chaque jour ku xam ak ku xamul duñu bokk ni ñuy waxee mu ne na ko ne yàlla mooy borom asamaan mooy borom suuf mooy sa borom rek kon Firawna da koy rey mais da ko mooy borom asamaan mooy boroom suuf ak lu nekk diggante asamaan ak suuf waa ji dugg ci biir te bokk te xamul la lu nekk diggante asamaan ak suuf yow foo nekk <laughs> man fan laa nekk yow foo nekk yéen ñëpp fan ngeen nekk diggante asamaan ak suuf suuf nekkuñ ci côté suuf si fan lañ nekk ci kaw kon diggante asamaan ak suuf la nekkoo asamaan nekkoo kaw asmaan nekkoo ci biir suuf kon foo nekk diggante asamaan ak suuf borom ne ko yàlla moomam asamaan moom suuf ak ñi nekk diggante asamaan ak suuf mbokk yi yàlla assami ñaata aaya ñuy ci alquran yàlla di jox assami mooy dégg ñaata la baatu alim yàlla moo xam mooy aji xam ji lépp yàlla moo ko lu tax yàlla mooy aji xam ji doomu aadama ci la am ci xam-xam wa ma utitum min al ilmi illa qalilan xam nga loolu la koy wan baat bi yàlla ne wa ma tu min al ilmi illa qalilan xam nga lu la koy wan bul dem fenn toogal si nga toog nga dégg léegi wax bi ñi jàng médecine dangay gis koo xam ne li mu jàng mooy kawar kese la jàng kawar walla nga gis koo xam ne nopp kese la jàng nga gis koo xam ne bët gese la jàng nga gis koo xam ne bakkan nga gis koo xam ne gémmiñ nga gis koo xam ne der nga gis koo xam ne yax nga gis koo xam ne deret nga gis koo xam ne bëñ bëñ ki jàng bëñ nu ngeen koy tuddee dansis ki jàng bët ki jàng nopp ki jàng der ki jàng deret euh, ah? gis ngeen xoolal ñii ñëpp kenn ku nekk benn rek nga jàng su ki jàng noo boo ñëwee ne ko bët mu ne <laughs> non non non non du sama domaine quoi il faut nga dem ci benn gi ki jàng bëñ boo ko tànk mu ne la moo moo yóbbu ko ci ñiy faj tànk man bëñ laay faj <laughs> wala yàlla loolu lépp la boole xam ko ndax moo ko defar yàlla loolu noonu gaa yi nga xam ne benn lañ ci def benn te waa ji def na ci ay at def na ci sax doctorat bëñ bi ci doctorat la ko def doctorat dara waaw. waaw léeg-léeg sax mu faj dëgg wér. kon ki boole lépp xam ko ba pare xam ko moom mii fajaati defar ko xam na wala xamul. moo tax mu ne wallahu yaalamu wa antum ñu ne la mu ne laa taalamuun yaalamuuna zahiran min alxayaati dunia te yéen sax de ci ngeen xam rek ci wàllu àdduna nii ci kaw mooy lii ngeen demee daf daf yi rek ngeen xam yéen xam-xam ci man la fekk baax man yàlla lu tax qad axaata allahu bi kulli cheyin ilman yàlla nee na lépp lu gis man yàlla dama koo feegi xam-xam yàlla amul lu mu defar fii te du xam-xama ah. yàlla bi mu koy def ci xam-xam la ko doomu aadama mooy def dara loo xam ne tegu ko ci xam-xam li nga gis ku defar oto ñu ne ko lii nag naa moom di ko defee nii ma def ko ah. ñu ne amu ah, ne wëy nii da ko gars yi amma yàlla subhanahu wa su ko doon démontrer pièce par pièce da ngay xam ne kii mooy ko xereñ te bul wax bul xool doomu aadama kese xoolal lépp lu nekk ci kaw suuf waaye boo soo buggee dem di sori loolu day métti ci yow moo tax da chaque jour su ma lay wax ma lay jox sa bopp di la jox sunu bopp yàlla lépp lu mu koy def xam-xam la ko defee moo tax moom mooy alim ngeen doomu adama ci biiru yaayam bi ko yàlla di bind di wax aaye composé muy dem muy dem muy dem ba aaye bi di jeex xam nga yàlla mu wax tabarakallahu ahsanal xaaliqin xam nga aay bu ko lu mu wax mu ne moom mooy xallaaq yàlla mooy xallaaq ni mu binde nit lan la ko bindee ndox yàpp deret yax ah yooyu yëpp mun nga ko ab léegi nañ indil ñeenti paan paanu deret paanu ndox paanu yax paanu yàpp ñu ne la defaral nit du lii la ko yàlla bindee xalaqal insaan min maa in mahin suratu suratul suratul mu'min mu ne man yàlla maa bind nit ah ma def ko lan mudra summa kasafna al mudra izama summa kasafna al izama lahman summa ansha'nahu xalqan axar wala mu ne fa tabaraka allahu ahsana alxaaliqin la yàlla mooy bindkat bi li yàlla def kenn mënu ko yàlla rek moo ko mën wallahi moo tax moom yàlla alalim xoolal ibrahim li day lay wan ne yow mi mën ngay opéré sax ngay opéré ginnaaw ba nga amee matériel yëpp balaa ngay commencé neen rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim yow mi nekk chauffeur nga xam ne am nga permis poids laissé poids lourd ban poids moo ci tegu transport am nga transport am nga tout tak nga ceinture bi dugal nga caabi ji waxal bismillah subhaanallazi saxara lana haza dellool mbir mi yàlla bàkkaar yi loolu lay jëriñ mooy yàlla da lay wan ne lépp looy def bala ngay def rek ma ko war a delloo même booy lekk tibb nga bismillah ñaanal yàlla soo paree alhamdulillah du yow yàlla la mais doomu aadama moom da gis kenn saay ku ne non ana matériel yi mu ne mu ngi nii plancher courant bi grand affaire bi kañ lay pare mu ne non dans 30 secondes nga ñëw lii dama koy dóor mu daal ana yàlla moo tax ndeysaan yenn saa yi mu dem ba caagare affaire bi am problème mu ne non pourtant lii yàgg naa ko liggéey de pourtant lii non mais c'est pas possible mais du yow yaa dalee woon ne du yow dafa am benn xale ndeysaan bu toll nii mu feebar papaam yóbbu ko principal docteur bi ñëw rek dóor takk bànd jël lu ñuy jëlee deret ñëw jam jam jam veine bañ a génn mu jam jam jam veine yi bañ a génn mu changé loxo jam jam veine yi bañ a génn mu woo papaay xale ne ko mais man affaire bi garaaw na ah. xale bi ne ko docteur est-ce que bi ngay commencer wax nga bismillah waa ji teg bagage yi ñëw toog jàkkaarloo xale bi ne ko yow doom ji fan la juddoo mu ne ko Sénégal fii nii Géejawaay Pikine gii mu ne noonu am tol nii naan bismillah ci liggéey boo ko war def ne est-ce que dañ ko cee yar est-ce que dañ ko cee yar maanaam da ngay delloo mbir balaa muy teg pikk bi balaa muy gas balaa muy takk buum bi balaa muy jaxase ciment bi lan la wax rabbana ey yow sama borom taqabbal minna yàlla na ñu nangul liggéey bii ñuy def yàlla na ko nangul mun ne yàlla yàlla mu ne lii sama yoon sama fu nanguwuma ko moo tax ñu ne la dee loxo wax bismillah ndax bismillah lépp loo ko wax day am barke yonent bi saa sam sax dafa wax ay ne lépp loo wax tuddoo ci yàlla fa huwa ajdar du am barke doom la xoolal même booy sëy ak sa soxna même bu ngeen di sëy ñu ne la waxal bismillah allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaan ma razaqtana pour lan doom ji juddu am ak mais da ngay gis fii gars yi dañuy mel ne ginaar bu séq boobu rek ginaar bu jigéen gi fële rek daw ñëw rek cof rek def li muy def daal di bërëngu fële commencé xaran xana yàlla moo doom yi juddu tey lu ñu doom yi ngeen ci gis ah kal an'am bal hum adal kenn amul barke ñaan ñu yàlla barke du hasard ñu jox ñu ñaan ñi du hasard du hasard yàlla taba loolu day tekki ne yow jaamu yàlla nga gis ngeen lan moo nekk diggante jaamu yàlla ak aada xam ngeen lan mooy différence mooy yéene yéene lekk day lekk woor nga ba ndogu jot ñu teg tàndarma bi teg lépp bisimilah nag jot na nga gis waa ji jël commencé lekk ay tàndarma naan kafeem fi julli ji kooku du am tiyaaba mais waa ji ne bisimilah gis nga commencé ñaan ñaanam ah commencé ñaan ñaanam commencé di ñaan commencé di ñaan yàlla day xam ne kii jaamu yàlla day am ñaar day am tiyaaba biiram fees yow nag xam nga loo am biir bu fees biir bu fees rek kii rek rawee na la ñaar moo am na tiyaaba biiram fees même ci sëy waa ji day am bànneex am tiyaaba delloo na ko yàlla ci lépp même ci waa dawal otoom sax moo otoom bu rafet mu ñëw dugg def ay ñaanam takk dawal otoom am tiyaaba am na otoom am na yàlla moo tax ab julit lépp ci moom yow la moo tax yonent bi saa mu ne ajaban li amril mumin inna amrahu kulluhu xayr wa laysa zalika illa li ndeysaan walaysa zalik illa li ajibtu li amril ci mbirum hadis bi maa ngi ko mokkalee ci sama gémmiñu benn oustaz suma nas ci téere ndax oustaz bi li mu ko wax ni mu bare chaque boo ñëwee am problème rek wala nga ñëw ndeysaan indi ko bànneex rek mu daan lay dóoru hadis ajibtu li amril mumin inna amrahu kulluhu xayr walaysa zalika illa li mumin yàlla nee na yenent bi nee na yéemu naa ci mbirum jullit jullit yéppam tiyaaba te loolu kenn am ko dul jullit mu ne bu amee bànneex mu sant yàlla mu nekk tiyaaba bu amee naqar mu muñ mu nekk tiyaaba pertul benn ñaar yëpp ci moom te loolu jullit rek moo ko am xoole ki nga xam ne dama perte benn marché rek marché daal di dem bind lettre ne day xaru takk bu mu ci baatam ki nga xam ne loolu sëy sëy bi tas mu dem jënd ay nivaakin di naan di xaru kii bëggoon takk benn xale bu jigéen rek xale bi ne ko non vraiment man gis naa beneen waaye boo xam ne moom mun na ma yor yow yow rek bu daal di bind lettre quoi ne day xam ñaata yoon ngeen di gis bu xaru bu dara rek ne day xaru mais jullit moom du xaru ñaar yëpp tiyaaba la pour moom ñaar yëpp tiyaaba la su santee mu nekk yiw ma moom su muñee mu nekk yiw pour moom yow doo perte loolu mooy différence aada ak différence jaamu yàlla kon lépp lu ñuy def nañu roy baay Ibrahima ci nii mu ñu jàngalee delloo yàlla ci mbir yi xoolal pareegul de ñëw ci beneen aaya mu ne rabbana yow sunu boroom waj'alna yàlla nag ñu def muslimayni laka ñuy ay jullit yu jébbulu ci yow muslimayni laka allahu akbar baatu jébbulu yow yàlla yàlla ma def man ak sama doom ak sama njaboot rabbana wajalna yàlla ngi def muslimayni ñuy ay jullit ñu la jébbulul ndeysaan te lii la ñett ñaan baat bi jébbalu ci yàlla chaque jour nga ñaan ko ne yàlla ihdina siraatal mustaqim chaque jour nga ñaan ko yàlla pour nga nekk jullit Ibrahima ngi nii ne yàlla yàlla nag ma def man ak samay doom ak sama njaboot man ak sama soxna man ak ñépp yàlla ngi def lan muslimayni laka ñuy ñu la jébbulul munqaadiina laka ñu la wommutul xaadiina li ci sa mbir wa nahyika bàyyi ci sa tere raadina bi hukmika yal na ngi ñu gërëm li nga àtte aabidiina laka yal na ngi def ñu la jaamu baat bi mooy baatu islaam yaa ko ci tawxiid mi la laaje maa huwa al islaam lan nga tont mooy al lillah mooy nga jébbalu ci yàlla mooy nga jox sa bopp yàlla léeg-léeg nga dégg ñu wax ci rajo bi jébbaloo nasma fi lxaflat aw fi lisaat aw fi ltalfazat jébbalu moo wóor kamarati nasmau jébbalu wax nañ dëgg de wallahi fan la wóor ci rek feneen foo ko def rek yàq nga feneen foo ko def rek musiba nga fay jëlee ndax ki la moom nga war a jébbal sa bopp ki la moom gis nga Ibrahima xam na ne yàllaa ko moom jàng ci beneen aaya is qaala lahu rabbuhu aslim lan la wax qaala aslamtu li rabbil alamin maa ngi nii di jébbalu ci borom subhanahu wu taala borom bindee fi gis ngeen nii la boppam day dafa laxas boppam moo doomam ak Balqis bi mu ne aslamtu ma Souleymane waxul aslamtu ila Souleymane lan la wax aslamtu maa yéen ñi jàng arab ngeen baatu maa la muy tekki maa ngi jébbulu ànd ak Souleymane lillahi rabbil alamin jëm ci borom bi subhanahu wa taala ñoom dañoo dégg ñun déggunu da ngay dégg ñu ne ku jébbal nit sa mbir ku jox nit sa bopp kooku yow texe nga waaw kii moom ku jébbalu ci moom ku ne rek Hmm. Sadio na moom assuré na moom moom moom leer na moom allahu akbar parce que waa jooju moom ñuy jébbalu moom est-ce que aljannaam assuré moom ci boppam ba bare ndeysaan saxaaba bi mu ne yonent bi bi yëpp yonent bi ne saxaaba bi waxal loo bëgg ma defal la ko ji ne ko asaluka murafaqatuka fil janna yooyu eh, loolu mënu ma ko waxal loo bëgguma ñaanal la yàlla mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna maa ngi lay ñaan ànd ak yow biir àjjana mu ne ko mënuma ko waxal leneen sahaaba bi ne ko dëgg yàlla man loolu rek laa bëgg yow ni ma ànd yow adduna ma ànd noonu aljanna yonent bi ne ko loolu mënuma ko mu ne ko loolu rek nga bëgg mu ne waaw loolu rek tamit mooy sa bëgg-bëgg mu ne waaw mu ne ko a inni ala nafsika bi kasarati sujud kon danag ma dimbali ci sa bopp ngay sujud lu bari ngay julli lu bari bu lu bari gis nga jox na ko yoon yi waaye jàpp ci loxo bi rek dugal ko munu ko moom yonent yàlla muhammad alayhi salaam léegi naka la nit di ñëwee ci nit ne ko jébbal naa la sama bopp ibrahima ngi nii ne yàlla man sama doom ji di tabax kaaba gi yàlla nag ñu def muslimayni laka ñu nekk ñaar ñu la jébbulul lan mooy jébbalu mooy nga jël sa bopp jox yàlla ba pare xaadiina li amrika wa nahyika nga toroxlu ci santaane yàlla def ko toroxlu ci bàyyi mooy yàlla nga sori ko loolu mooy baatul islaam est que foofu nga yem déedéet mu ne raadina bi xukumika su yàlla àttee nga nangu falaa wa rabbik laa yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum bi aaya bi continué lu mu ci rek summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt baat bi ñëw yusallimu taslima moo tax dañuy yëngatu te xamuñu lu ñuy yëngatu dañuy dund diine te diine ji moo leerul suñu bopp xam ngeen li tax li tax bokkaale bi bari mooy diine bi leerul xoolal fi nekk ni Sénégal am na ñoo xam ne boo leen waxoon am na ñu nekk ci biir Sénégal xamuñu diw mii rek problème la quoi non diw ñoom jàpp nañ ne mala malaul aala dañoo xam diw kooku kenn xamu ko ñu ne koy kooku yéen a ngi fàttaliku Sénégal bi mu demee coupe du monde joueurs yi bu ñu dugaloon but nan la ñuy def dañuy yëkkati seen maillot ci kaw am na benn seulement bu ñuy sol ñu dessiné ci benn kilifa bu ñu yëkkatee kilifa gi ne nii coupe du monde bi ban dëkk la amoon japon japonais yi ne non xanaa kii mooy grand footballeur bu nekk seen Afrique bu nekk seen de xanaa kii nuyu si le grand footballeur là gis ngeen kon kay ñu xamuñu ko nga yëkkati di leen ko wan kay ñooñu xamuñu ko suñ ko xaman dinañ wax loolu am na ñoo xam ne mbokk yi Sénégal gi ñuy dund rek ñu bëri xamuñu leen dundin Sénégal gi Sénégal nag boo fi waxee loolu am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne la ilaha illallah ñoom jibril ak moo tax da gis ñu dessiné jibril indi ko fi dessiné mikail asrafil azrail malakal mawti ñoom ñoom ñu dessiné leen indi leen ñu yenu fi ay kër fii ñu yenu fi ay juma fi ñu yor fi ay leet fii ñu yor fi ay bolde di dóor ay jigéen fii ñu yor ay kuur fii ñu yor ay sii di riis bopp ñëw dëgër fit di dessiné malaayik muy riis bopp ñu def malaaka bi am ay béjjën bopp bi bi mel ni bopp xaj làmmiñ bi yor bol bi est ku leen ne malaaka noonu la mel kan ma leen ko wax te ñoom maan ragal yàlla yem fi ni yàlla yem loo nit ñi bu ñu leen bëggee tiital pour ñu jaamu yàlla alxuraan a ngi ni doy na alxuraan la yonent bi est-ce que dafa indi ay dessin alxuraan bi la indi rek wax ko saxaaba yi dégg ko la ndax yàllaa ko yónni maa yantiqu in huwa illa wahyun jeex kon loolu mooy diine diine daal baatub islam bi ibrahima ñaan boroomam ne ko rabbana yow sunu boroom wajaal naa yal def muslimayni laka ñuy ñaari aaya yi bi ñu paas ak lislaam daf ñuy jàngal ne nekkee njiit wala ngay ñaan wala nga nekk kilifa nga ànd ay wala nga ànd bul jël sa yow kese bàyyi nit ñi baat bu njëkk bi Ibrahima ba muy yëkkati fondement bi lan la wax yow yàlla sunu borom yàlla na mu nangul kon dugal na doom ji fii tamit munoon na wax rabbi munoon na wax rabbi wajaal nii wala mënu ko woon wax waaye xoola mu ne yow sunu boroom nit da ngay fàttaliku say mbokk fàttaliku say soxna fàttaliku say doom sooy ñaan boole leen ci lépp looy def dugal leen kom boo amee di leen sédd dafa am ñaar ñu àndoon di dox ci àll jàng ngeen ko ci tilaawa yaakaar naa juzu xaamis la tilaawatul arabi bu marok bi bi ñu àndee ñoom ñaar ñu dem ba ci ñu for mbuusu xaalis kenn ki moo for mbuus bi bi mu foree mbuus bi ki mu àndaloon daa nekk ah <laughs> sunu xaalis bi de bëri na mu ne bul wax sunu baat sunu baat bu araam la mu ne ko lu may wax mu ne ko sama xaalis mu ne ah kon xaalis yow kese yaa ko moom mu ne ah du maa ko for kon koy bul wax sunu xaalis baat sunu baat bu rafetul la quoi vraiment du ko waxati xam nga kii moom teel naa jàmbu de yow nga ànd ak nit ci àll. séeréer yéen ñaar ngeen for xaalis. mu ne la sunu xaalis bi nga naan bul waxati baatu sunu baatu sunu baat bu ñaawla bul ci jaaraat ah ne ko d'accord ñu dem tuuti bandi yi ñëw yor seeni mbol de attaqué leen ki yor xaalis bi gars yi song ko commencé di ko wulli jël xaalis bi mu ne eh, eh, eh. sama waay kaay jàpp ci sunu xaalis bi na ko déet baatu sunu xaalis dafa xaraam bul ko waawaat daal koy romb gaa jàpp ko wulli ko nangu xaalis bi dem ak moom gis ngeen yéen yàlla jàngeen ci alquran keroog ba muy wax xudar xudar ne ko tey damay tàqali koog yow mu ne ko déet sa tajidu sa tajidu ni insha allah déedéet sa tajiri ni incha allah déedéet du mina saabirin de sa tajiri ni incha allah saabiran te mi ngi ànd ak nit dafa wax boppam bàyyi kooku dafa waroon wax mina saabirin mu ne saabiran di ma fekk may ku muñ man kese te mi ngi ànd nit moo tax xudar ne ko tey damay tàqali koog yow tey haza ah? waaw man mënuma muñ waaw haza firaaqi bayni wa baynak tey damay tàqalikoog yow nit da ngay dugal say mbokk soo amee nga bokk say mbokk sooy ñaan nga ñaan yaag say mbok lépp looy def nga bokk ay nit Ibrahima lool la jàngale wala mi ngi nii di tabax kaaba gi munoon na ne pourtant doomam na ne yàlla maa ngi nii de commencé naa yàlla nag ma nangul yàlla yàlla nag ma def jullit waa wala mais dafa ne rabbana yëpp rabbana la wax waj'alna muslimayni lak yamu ci de yàlla na ñu def ñun ñaar ñi ñuy ñaar ñu la jébbulul waaye wa min zurriyatina wala dafa ñaan sax ba ñaanal doomi doom ji ndeysaan moo tax léeg nga gis nan benn waay buy dóor doom ci ngay ñaan yàlla est-ce que ñaan nga rabbi habli min as-salihin yàlla may ma ci doom yu baax yi est-ce que doom dina tax bàyyi dem safara mun nga am doom doom ji alag la ñëw na ci xadis ñëw na ci alquran ñëw na ci suratul kahfi su ma juumee ngeen orienté ma ci suratul kahfi yaakaar naa la nekk yàlla ne fa amma alxulaam fa kaana abwaahu muminayni fa xasina an yuriqahuma tubyaanan xale bi amma alxulaam fa kaana abawaahu xoolal yàlla moo leen adressé de baatu iman mu ne xale bi ndeyam ak bàyyam ñaar gëmoon yàlla rek waaye man yàlla xam naa ne xale bi bu màggee day détourné ndeyam ak bàyyam moo tax ma jox xudar ndigal na ko rey balaa muy màgg kon fii bëri na tey ay doom yu détourné seen ndey seen bàyyi nan lañ leen détourné mooy nga jëndloo leen ñu jëndloo la lu bon def ñu fexe ba nga def lu bon jëndal leen yére yu bon jëndal leen col gu bon létt yu bon jëndal leen matériel bu bon indi ci kër gi wala jox leen paas ñu dem barab ñaata ñaata tey ay parents ñooy jox seen doom ndeysaan du ma fàtte mukk benn élève bu amoon mu def entrant sixième CEP mu daal di am mu daal di admet yaayam a ngi woon Italie ñu téléphoné yaayam ne ko diw am na entrant sixième ak CEP yaay ji yónnee ko xaalis bu bëri ne ko na def feet ñu daal di koy yóbbu Val ñu daal di koy tànc mu dee yaa ngi dégg yéen ngi fàttaliku Val d'Or bi fi Viviane doon tëgg xaw ma mu am bousculade embouteillage am fa ndeysaan xale bi di daw daal di daanu ñu dëgg ko ba noonu la day ba noonu la pàccee daal di dégg wala xale boobu lan mooy sababu dee ay ay mbokkam ñoo ko yóbbu na dem mooy yàlla mu dem dee ñu may ko xaalis lan laa war a def wala ñu ne ko santal yàlla yàlla mi la may mais demal Val d'Or ndeysaan allahu akbar demal Saly muy dem ci yoon bi accidenté dee demal Ngor mu dem gaal gi lab mu dee demal Casamance mu dem lab ci batolo joolaa dee demal stade mu dem ñu tànc ko mu dee demal place sàngam mu dem miir bi daanu ci kawam mu dee fekk dafa demoon mooy yàlla te yub as kullu abdin ala maata alay ku nekk ci li nga dee ngay dee yub as kullu abdin ala ma maata alay yonent bi nee ku nekk ci li nga dee ci ngay dekki wallahi bu fekkoon ne da ngaa dee ci yor butelub sàngara di ko naan yowmal xiyaam booy dekki da ngay dekkeeg butel bi da ngay dekkeeg moom yàlla ko wa man xalla yaati bi ma xalla yowmal xiyaam moo tax yonent bi ne sahaaba yi bu ma daje kenn ci yéen mu yero gënee mu jàmbur yenu ko naan yaa Muhammad saahid nii yore yore gëlee mu jàmbur yenu ko naan Muhammad dimbali ma ci gëleem bi rek mu jàmbur léegi ni gis nga portable bi ku ko sàcc yow mal xiyaam da nga koy yenu indi ko de ku sàcc oto jàmbur yow xiyaam di nga yenu oto bi di këll këlleeg moom ba taxaw ci kanamu yàlla ba man xalla yaati bi ma xalla yow mal xiyaam moo tax islam mooy diine ci ñëw pour defar doomu aadama islam du la yar pour nga am ay daf lay yar pour nga ragal yàlla soo ragalee yàlla nag foo nekkati jàmm rek moo fay nekk boo ragalee yàlla ku la bàyyi biir këram dootul tiit imagine leen lim tey da ngay jékki-jékki nii nii rek te pourtant xoolal yaa ngi sa jabar kese la ci biir kër gi nga nii nii gisoo sa kalfe nga nii nii gisoo ko rek nga ni sa far arrête arrête arrête lan la sama kalfe laa faat nga daw pourtant yaa ngi sa jabar rek yéen a <laughs> sa jabar sa wóolu woo bu fekkee nga am jabar nag am ay jabar yu bari ak doom yu bari nag laa ilaha illallah foo mënoon naawloo oto bi boo ñëwee doo ko wàcc sax ci bunt kër gi ci digg saal bi nga koy wàcc këŋ doo ko jëlaat calfe bi boo jëlee calfe bi doo ko jël dugal sax si fa da ngay ubbiwaat commencé vérifier di xoolal di vérifier parce que yaroo sa yoon ci ragal yàlla boo leen ragal ci ragal yàlla ndeysaan da ngay ubbi rek doo sa doo dellu si waat da ngay dem ba ñëwaat daal ne man de tout temps bi ngay dem sànq dama fàtt ñu ne waaw mu nañ soo jëlee doo konti démb góor gi mi may ne nettali ay xale yu muy yar nee dafa yónni kenn ki mu ñëw daal di jaxase xaalisam ak xaalis bi ko yónnee woon mu jox ko mu jékki-jékki ñëw ne ko papa mu ne ah mu ne ko sama xaalis jaxasoo na ci biir xaalis mu ne ko ñaata la mu ne ko nan mu daal di jël jox ko na wul dina ko lu tax mu ne xam naa ne kii xam naa ne ku baax la du sàcc gis nga ngeen ragal yàlla soo yaree sa waa ci ragal yàlla dangay ngay bu ñu yaree dëkk bi ci ragal yàlla dañuy noppalu fi nekk ni kenn wóorul kenn ku toog indi fi portable am nañ ko enregistré sax yenn saa mu yëg sax ci biir jàkk ji ki nga dendal nga ni nii di ko xoolaat ne nii mu xool la woon ci oto ndeysaan ki nga dendal nga koy xoolaat buntu jàkka ji dañ naan dugal leen daal lii ci biir inna lillahi wa inna ilayhi rajiun am ngeen lu ko waral mooy yaruñu nit ci ragal yàlla nit ñi buñ leen raye ci ragal yàlla jàmm rek am ndeysaan allahu akbar yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam dafay yaroon ay nit yoo xam ne biir ak bit sirran wa alanan wa alaniya lépp lañ yemale fu ñu nekk lu tax ittaqillaa haysuma kunt ragalal yàlla foo mën a ne bu ñu wéetee xam ne ñoo ngeeg yàlla ñu nekkee xam ne ñoo ngeeg yàlla fu ñu mën a nekk xam na ñoo ngeeg yàlla Omar fekk na benn waaye ci àll bi ndeysaan di ko seet muy sàmm Omar na ko ñun ne dañoo génnoon nekk ci liggéey yàlla bi dox nag ba xiif ñëw fii gis la ngay sàmm saxaar yi doon ci jaay benn ñu rey ko lekk mu ne moom ma ko dañ ma koy sàmmloo mu ne ko boo demee nga ni sàmmkat bi jël ñoo fàdd benn xar sàmmkat bi ne Omar ayna allah ana yàlla ayna Omar xëm bi mu ximmilikoo mu ne waaju mel nii warul nekk sàmmkat Omar ibnu Abdul Aziz dafa fayoon benn waaye bu tudd Omar ibnu Muhajir Omar ibnu Muhajir xam ngeen lan mooy mission xam ngeen lan mooy mission ci palais ministre boo xam ne xam ngeen lan mooy mission bu président bi toogee mu toog ci ginnaaw su président waxee ba càgg rek mu ne ko rël ci mbagg yi këcc gësëm ko bu président bi gestoo mu ne ko ittaqillah ragalal yàlla kooku loolu rek muy mission weer dee ñu fay ko salaire pour président bañ a fàtte ne dafa war a ragal yàlla fu mu nekk Omar ibn Abdul Aziz dafa xoloon benn waaye boo xamante ne waa ji xam nga lan mooy métier su waxee ba càgg bëgg a rek mu ne ko yaa amiral muminin ittaqillah laa ilaha illallah baat boobu moo doon defar adduna ragalal yàlla te boo ko waxee nit te kooku nga koy wax fekk mu def bàkkaar daa lan laa def xale bu jigéen bi ma foon rek kii ma ko rek loolu rek loolu rek loolu rek loo ma ci war a ragalal yàlla non mais vraiment yéen yoon di ngeen a métti man dama ko xalaat kese loolu la lay wax ndeysaan nga fekk lekkatu riba nga waxu ma la mais xool affaire bi moom lii foo ñu lekk c'est la vie hein voilà ndeysaan démb boo ko waxoon gars yi day dañuy du ñibbi seen kër du ñu añ du reer du nelaw guddi tajaafa junubuhum anil madaaji yi ndeysaan dootuñu mun a nelaw jàngeen histoire Omar Omar di contrôler dëkk bi guddi danaan dox ba ci tàppaat yi tàppaat xam ngeen tàppaat hmm. <laughs> xam leen tàppaat mooy wetu miir yi tàppaat mooy kër ku ñu tabaxul def ci ay seng wala ñu def ci ay sàkket wala kirinting loolu mooy tàppaat Omar day dox ndeysaan ba caaga mu déglu taxaw di contrôler xoolal ku tol ne Omar ñu def ko président du nelaw guddi day contrôler dëkk bi ndax nit ñaa ngi ci njub wala nekk ci caaxaan mu dégg benn yaay buy wax ak doomam naan ko yaay naan ko doom benn paanu soow lañ doon njaay mu ne waaw mu ne def ci beneen paan def ci ndox ndax ndox soow mi bari ndax bénéfice bi bari yokkal beneen paan defal ndox ci beneen paan ba mu fees nga jaxase soow meeg ndox mi ñaata paan lay nekk ndax bénéfice bi bari mu ne ko yaay loolu Omar dafay tere mu ne ko Omar nekku fi gis gisunu mu ne ko in kaana omar laa yaraana far rabbu omar yaraana bu nu omar gisul yàlla mi moom omar moom lañ gis xoolal soo moom omar bi mu déggee loolu xam nga lu mu mu ñibbi këram daal di woo doomam yu góor yi ana diw mu ne maa ngi nii ana diw maa ngi nii mu ne maa ngi nii mu ne dem leen kër diw bu ngeen demee mu may leen doomam bu jigéen bi ngeen def ko jabar te maa ngi leen di yëgal nag su ngeen ko takkul man omar dinaa takk xale bu jigéen boobu ngeen ko takkul ma takk ko ah. bu fi kenn ñëwaat nag naan ma nangam xisaab mu ne ah mu ne boo ko takkul ma takk ko dama de xale yu jigéen yooyu ñëw mat a takk mais tey da ngay indi kuy paccal daan ne paa Eva ngi nii ah booy bi laa doon wax paa mooy Eva mi ngi nii quoi paa kings ngi nii quoi kings paa di xaa ngi nii quoi mu ne ah ki mooy Xadija mu ne mu ngi dangal de ci kanamu paa bi jumbax mu ngi génn ween yi mu ngi ko tag ci fu muy génn ndeysaan paa bi daal xam nga paa bi lu muy wax ule mu ne subhanallah bandi bi dinaan toogal <laughs> toogal nga bu xale bu góor yi mu ne non toogal bu kii waa paa bi naan dite la quoi xam na nu mu demee paa bi naan dite la quoi France la nekkoon non pas de tubaab non grand bul non day xale bu jigéen ñëw ba ci buñ ko rek bëgg a dellu xale bu góor bi xëcc non dugal non pas bi naan di teel a dugal waaye pas bi grawul quoi gis nga mooy pas yooyu di dundal gis ngeen grand place bi bëree Sénégal mooy pas yooyu di dundal seen bët toog rek tax di xool xale yi jigéen toog di xool dundal seen bët grand place grand place grand place yonent bi bi mu yar saxaaba yi ci grand place xam nga lu ma mooy tandiku leen toog ci mbedd yi saaba yi ne ko ah mu ne jox leen mbedd mi àqam ñu ne ko ba maa tariq mu ne rat basa mooy premier sàjj sa xef waaye nag mbedd rabdul basar bu mu lin delloo wa qul lil muminin yaxuddu min absarihim wa yaxfazu waaye wa qul lil muminat yaxdudna min awsaarihinna wa yaxfazna furujahun c'est que dundaguñ diine bi de yonent bi saa sallam nee na ku bàyyi xool lu xaraam soo bàyyee xool lu xaraam yàlla may la lazzatul iman nga koy yëg sa xol nga yëg bànneexu ngëm yàlla combien de mbokk combien waxuma ñu dund sunna de ñuy dund sunna ñaata nit ñooy ñëw ñu la oustaz man dama am dooful iman ngi julli maa ngi kii aw ma ngëm yàlla parce que xamul tax da ngay kuy xool lu bon doo am bànneexu ngëm yàlla wallahi boo toogee juróomi fan xooloo lu bon da ngay yëg ngëm yàlla di neex neex ci sa xol da nga koy sentir da ngay yëg ngëm yàlla gi nii ci sa xol bi nga koy yëg billahi allazi la ilaha illa huwa da koy sentir mais booy xool lu bon lu yëngatu nga xool xool ci mbedd yi ba doyal dem ci télé bi xool ba 4 heures du matin télé bu bon lu génn nga xool bu bu bonam jeex nga dem ci beneen chaîne nga nekk noonu ba dégg ñu naan asalaatu xayru minan nga bëgg a jàpp ñëw jàkk dangay sooy sa bopp da yi kon yi ñëw sa kanam nga rukkoo di gis ñuy sëy nga sujjoot ñuy sëy nga naan asalaamaaleykum billahi lazi la ilaha illa hu nga bàyyi xool lu bon soo kabaree sa xel nekk ci yàlla soo rukoowee sa xel nekk ci yàlla soo sujjootee nga jege yàlla boo ne ko yaa rab yaa rab yaa rab mu ne abdi wallahi la ida saalaka ibadi anni ayna an ayna ana fa inni qarib ujibu daawata daay ida daani bu la jaam ñi laaje man yàlla fan laa nekk ne leen soriwu ma de léen yaakaar yàlla ma yàlla nee na man ku ma woo ma wuy la koo woo ma wuy la kay la léeg nga dem ak nit nga ni diw diw diw ñu ne ko eh wuyul te pourtant yaa ngi koy laal wala déggu leen loolu mm-hmm. eh wuyul yow yow di nga <laughs> non sama xel gis nga yàlla nag soo ko wooyee mu wuyu la wa iza saalaka anni ah bu la laa gaa yi laajee fan laa nekk mu ne fa inni qarib damaa jege jàngeen alxuraan yàlla mu ne man maa leen gën a jege seen buumu xol yi wa jeex na kon il faut ñu bàyyi delloo xel suñu bopp bu ñu sonal suñu bopp gis ngeen diine bi kenn du ko triche diine ji koy dund kenn du ko dundant li ñu sonal mooy dundant la yàlla wax dund dund diine bi sahaaba yi yonent bi sallallahu benn sahaaba dafa ne yonent man bu ma toogee yow rek am imaan mais bu ma demee imaan bi naaw mu ne ko saatan fassawa yaa Hanzala mu ne ko gis nga ni ngay nekkeek man boo ci jéemoon sax léegi nga saafonteeg malaaka yi démb dama doon waxtaan ak cheikh bi ba tey démb bi ñuy waxtaan mu ne ma doomu aadama dafa am benn parti boo xam ne mala la am benn parti boo xam ne malaayika la maanaam ruu la dafa am parti boo xam ne ci nit parti rabu àll la am parti boo xam ne parti ruu la doomu aadama dafa am lu jël ci malaayika am lu mu jël ci rabu àll li ah a ah, parti la jërëjëf beneen parti ah parti doomu aadama parti malaayika mooy jaamu yàlla ruu da war a sell pour set pour jege yàlla parti rabu àll mooy lekk naan sëy cëppi cëpp parti seytaan mooy mooy yàlla mooy mooy yàlla léegi nag danga war a xeex ñetti parti yi soo dof dof dofloo nga nekk seytaan soo xawee dof doflu nekk rabu àll soo ñitee nekk malaayika am na ci doomu aadama yoo xam ne ay malaayika lañ ngeen di jàng ngeen di gis ay kéemtaan ay kéemtaan yi ngeen gis ay nit ñu naan ñii ñii kii kii kenn mënul mel ni ñoom ñoom dañu góorgóorlu wallazina jaahadu fii na lanahdiyannahum dañoo ja baatu jihaad mooy la wallazina dañoo xeex ak bakkan bi goreel bakkan bi dañoo jàpp bakkan bi xeral ko parce que bakkan moo xale buy nàmp ñoo yem am mooy lekk naan sëy da di sëy <laughs> mais xar yi dañuy ginaar sax day sëy xel sax day sëy yow day sëy bu ñu sëy loolu du ñu nii ngeen di ngénte la yooyu di ngénte bu ñuy tudd ñëw naan seen deret yi ba ngeen fees dal ñu ñëw gis loolu ay rabu àll la yow boo jaamoo yàlla tabaraka wa taala sa parti rabu àll boobu day mujj a yéeg parti seytaane bi mooy mooy yàlla soo jaamoo yàlla mu yéeg fooy mujj nekk mooy da ngay mujj nekk ku jege yàlla hadis bi ngeen jàng mu ne doomu aadama du deñ di jege yàlla ci farata yi ak naafila yi ba mujj gi bu xoolee kan mooy xool su dégloo kan mooy dégg su waxee kan mooy wax su jàppee kan mooy jàpp su waxee rek man yàlla ma def su waxee ma def ñooñu waxuma ay yonent de ay nit rek nit nit ñoo xam ne bu ñu waxee yàlla def moo da nga dégg ñu mooy tudd diw ñaanam baax bu la ñaanee yàlla da yàlla ko ñooñu lan la dañoo mujj nekk ay xaritu yàlla kon foo ñu bàyyi xel doomu aadama su góor góor góorloo di yéeg waaye bu ñu xoolee day yàccaaral yàlla yow sama boroom yàlla nag ñu def ñuy ñaar ñu la jébbulul man ak sama doom Ismail waaye wa min zurriyatina ak sunu njaboot man Ibrahima samay doom nañ baax sama doom ji Ismail ay doomam na baax bëri na ci ñun koo xam ne doo ñaanal sa njaboot yow yar rek nga yor ak sa kurpay ak xaalis ak di leen jëm non yenn saa nga gis bérum kër gu ne non vraiment gis nga sama doom yi lépp laa leen defal ma leen doon gàtt lépp laa def mais xoolal tey ni ñu mel ah parce que yow da yaakaar ne xaalis mooy defar déedéet da yaakaar ne jàng dem yóbbu fële ci école yi ñu dem jàng ba nekk ay docteur jàng ay fii nekk ay déedéet loolu du defar defar mooy nga ñaan yàlla yàlla defaral la gis ngeen yonent yàlla yaxya déedéet zakariya ba muy ñaan yàlla doom lu mu wax ismail ba muy ñaan yàlla lan la rabbi ij'alni muqima salata wa man zurriyati rabbi habli min as-salihin yàlla yàlla mooy doon doom doom doom doom yàlla may la benn doomu agressé balaa muy agressé kenn nag yow lay njëkk a ndulli ne la gis nga nag waaw na nga def attention de o nën da jo gis nga paa xaaral rek xam nga man maa ngi noppi rek ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun léeg-léeg nga dégg ci réew mi benn xale bu góor naan dama naan tat wax paa bi raay tat laay def wax paa bi raay dégg leen loolu yow bi nga ne cocc munoo wax raay nga naan da naan tat wax raay day dem tox boon ba bëri xonk mu ñëw jël jaase ñaata sénégalais ngay gis yu rey seen papa ñaata sénégalais yu rey seen yaay jàpp sa papa dóor ba mu dee ay gestes yoo xam ne da xam ne waaw wallahi waaw wala nga def loo xam ne day sa sa yaay wala sa baab balay jaar rek génn àdduna poñe ko wala ñëw dóor kenn ci kër gi sa papa ñëw nga bëmax ko mu daanu dee ta wala tension monté ñu yóbbu ko daal mu jaar fa dee ku ko ku ko rey ñaata Sénégal la ñooy def loolu tey man gis naa koo xam ne papaam élimaan la woon ko dóor direct paa bi këpp dee te paa bi ahlu sunna la woon de bëgg paa bi rot faatu ñu jël waa ji denc ci kaso bi doy salaat moo tax nañuy ñaan yàlla am doom doom neex na torop da ngay gis jigéen ju bëgg doom bay dem di sangu ci ay guy pour doom wala muy dem ñeneen di sëy ak moom pour mu am doom wala muy dem di njaa dafay kenn xamul ngir am doom wala muy dem ñuy xotti biir bi di ko ëmbal beneen ovule pour mu am doom aka bëri Sénégal waaw mu ne mu ne bëri na ay sabab yuy rey way jur yi sabab bi mu ngi jógee ci ñàkk a toppatoo sa doom jur yooyu mbir yi dañ ci bàyyi gis nga alquran jàngaluñu nii rek yow iz yarfa'u ibrahima qaa'idan min albayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim loolu loolu kese moo tax alquran bi wàcc loolu kese de ñu ngi tëj ci nii rek këj après ñu ñu dem déedéet yàlla dafa bëgg baax di ñu xool ko settantal ko fi yonent yi jaaroon baax ulaika allazina hada allah fa bihudahum iqtadi ñii laa baaxal boo bëggee baax jaaral foofu su la yàlla waxee nag lu mu la rek nga ñëw nag ulaika alladina dallah fa bi hudaahum iqtadi non du loolu kese yàlla dafa bëgg ñu jël baat yi dund ko mais buñ ñëwee rek di ko yiw après mu daal di jeex ñu ñëw ñu tëdd nelaw nga am doom ñëw fi nekk agresseur nag yow xool la ba caag na la yow dama rek un jour benn doon naa la nga naan eh ci kii du ma bàyyam waaye mun naa la waaye ban baay waaye yow ban baay man dund ma yooyu ay baay ay ay ay ay yaay dund yooyu waaye xoolal gis nga ay baay mooy lan yooyu wees naa gis nga léeg-léeg xale yu bëri la ñuy wax ñaata chaque jour déglu leen bu ñuy def jugement Sénégal ñuy def jugement Dakar def jugement ci région yi da ngay dégg ku rey baayam ku rey nijaayam ku rey yaayam ku rey frère am oh là te lii waxuma leen ay étranger de Sénégal kon dañuy ñaan yàlla suñuy doom yi yàlla di leen baaxal soo ñaanee yàlla yàlla gis nga noonu ngay mere naan yàlla na la oto dër yàlla na nga dee billaay yow ñaan ko lu baax ndax yàlla baaxal ko su ko yàlla baaxalee nga noppalu soo amee doom yàlla baaxal ko nga am jabar yàlla baaxal ko billaay noppalu boo tëddee da ngay nelaw mais boo amee doom mu bon wala jabar ju bon ndeysaan ku la gis da ngay jeex di jeex ñu ne lan la xanaa doo lekk maa ngi lekk wallaay xanaa doo naan yow da nga loo jot da nga feebar léeg-léeg Sénégal ni dee feebar ñëw ko hôpital def analyse bi ñu ñaata yoon la ñu ne yow xamuñu loo jot da ngay def bilan mu def bilan tout ñu ne sa feebar rek feebar baa ngi ci bi xam nga feebar bi lan la mooy xel mi moo dalul digganteem ak yàlla ku sa xel dalul boo lekkee duusu tey jigéen ju fiir doo am yaram mu da ngay jox mu lekk ba bëgg dee waaye day jeex rek balaa mu ne man xam nga lu muy sama problème man sax nag mu naa ngaa mujj mais bu guddi jotee nga tëj néeg bi non man du ma normal sama biir neen <laughs> yow yaay kan ah? ñaan yàlla yàlla dañu may njaboot gu baax wa min zurriyatina mu ne yow yàlla suñu njaboot ne yàlla na ñu def ummatan ñu nekk nation xeet boo xam ne muslimatan dañoo jébbalu wala ummatan muslimatan Ibrahima ak dégg ñaan munoon naa ñaan rek njaboot gu baax mu yem fa mais mu ne yàlla ña ñu def ummatan nation xeet waaye muslimatan bu jébbalu jëm jëm jëm jox seen bopp yàlla ummatan muslimatan xeet boo xam ne doom yoo xam ne jabar yoo xam ne dëkk boo xam ne réew moo xam ne nit ñoo xam ne ñoom ñëpp dañoo jox seen bopp yàlla ummatan muslima loolu la Ibrahima ñaan kan lañ jébbalul mu ne muslimatan laka yow yàlla yow lañ jébbalul jébbaluwuñu keneen fii ñun la la ñuy wax Sénégal la la ñuy wax kaay leen kaay ma nga jébbalu gis nga sunu maaraa bi on nën la ci moom xoolal booy boo la dara mais dalay branché ci prise bi sa léppay leer nga yagar yagari mu jàpp sa loxo ñëw ne nga ni ko bis nga sujjóot ci kanam simmi sa mbax ne simmi say dàll ne nguruuf ci ci tànk daan ne ko jox naa la sama bopp àddina ak àllaaxira xam ngeen du gars yi bu ñuy jëbul loolu la ñuy xam ngeen loolu jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira nga dem quelques jours nga dee ki la yóbboon daal di woo sëriñ bi téléphone kër sëriñ bi daal di jël ne allo kookaan mu ne man la diw eh, ah, na nga gañ ah sëriñ mu ne ah, ah ngi jégalu de diw moo dee mu ne ha loolu kañ la eh, xam nga ne kay kii xamul dara yi nga xam ne bi nga feebaree sax yow nga dee yëgu ko loolu kañ la xanaa dafa feebarat gis nga yëgu ci dara ba pare moom nga joxoon sa bopp de moom la yaa ngi nii dina nga yóbbu mu ne kañ la kañ la de ah néew bi waroon na jóg jël jox la sama bopp ma dee yëgu non ndeysaan gars yi ne nañ séeréer bi mu jébbuloo sëriñ bi ne ko dinaa la dugal aljanna séeréer bi toog jaag mu ne sëriñ mu ne ah mu ne jox ma caabi soo ma njëkkee dem bu ma ñëwee dugg bu ma la njëkkee dem bu ma ñëwee ubbi dugg mais maa la ko yoral rek loolu wóorul sëriñ bi ne ko nañ jaamu ji yàlla mu ne léegi nga wax lu wóor nañ jaamu ji yàlla waaw jox ma caabi ji su ma ñëwee fekk ma la fa ma ubbi dugg du loolu su ma la njëkkee dem ubbi dugg soo ma njëkkee dem su ma ñëwee ma ubbi dugg bu ma ñëwee fekk ma la gisuma la du ma wëri boo dénkee ni sa caabi nga ñëw même sa néeg bi rek boo bokkee nit ak néeg nga ñëw ndeysaan moom moo yor caabi yi nga ñëw fekk ko fa nooy def ah borom dëkk kenn du ko njëkk a yow digaate aljanna Sénégal rek nga koy fekk dig nit aljanna beneen waa ji moom ndeysaan dañoo bay ba mbay mi jeex nawet ñu jël saret yi ñetti saret duñ ko ba mu fees dell li ñu bayoon papa jeeg doom ji ñëw ci naaj bu tàng jër sëriñ mu ne am ah, mu ne lépp a ngi nii tool yëpp indi naa la fa nekk bàyyiwuma daf lépp laa la indi waaw yow insha allah yow moom xaw ma kan waaye yow sa njaboot njabootu sa njaboot njabootu sa njaboot njabootu sa njaboot ñëpp naa leen yóbbu aljanna tey bay bi yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu ba heure ñibbi jot sëriñ maa ngi ñibbi mu ne bismillah tax la xoy te nag seen ñaan ay seconde la tax la loxoy ñu dox noonu dem ci tali bi rek sëriñ bi daal leen romb benn 4x4 daan ne leen nii papa ji ne doom bi taxaw na dama pap kii du mooy ki ñëbuloon sunu sunu dugub ci mu ne wax moom moom la sëriñ bi mu ne ah bi oto bi ñaari nit ñoo ci mu ne ko mu sëriñ bi ak diw bi la doom bi waaw waaw waaw moom lu mu yóbbaale wuñu loolu yow loolu it seen doom bi ne waaw pap ku ñu yóbbaalewul àdduna ci otoom ndax àllaaxira dinañu yóbbaale aljanna ku ñu yóbbaalewul ci otoom ci àdduna romb la ne la nii te ngay vrai taalibe indi ñetti sareet ba mu fees dell ak dugub ak keeb ak gerte ñu ne la nii ah au bye bye ma salaam ne papa ku la yóbbaalewul ci otoom àdduna ndax àllaaxira la yóbbaale gars yi nañ leen yeewu nañ leen jaamu yàlla mu ne waa ji dafa indi doomam bu jigéen. Ah, di ko présenté sëriñ bi. mu ne ndax am na jëkkër. mu ne déedéet. mu ne kii kat nañ ma ko nañ ma ko takkal sagar. Ah, eh, eh, xaalis bi. mu yëkkati can bi joxe. mu jëlaat xaalis dolli ci. mu mu jox ko ba pare daal di jooy. mu ne def nañ ko addiye. mu daal delloowaat xaalis bi. mu delloo xaalis bi joxe xale bu jigéen bi mu dolli ko ci xaalis encore joxe waat xale bu jigéen bi war a jooy ne yëpp def nañ ko àddee ndeysaan ngir rek aljana nga yaakaar aljanna aljanna nag ku ko bëgg da jaamu yàlla aljanna li fay yóbbu nit mooy jaamu yàlla xale yu ndaw yi ndeysaan dañ naan buñ leen di jàngal jardin d'enfants ñu ne yow miy jullit te bëgg a baax royal rasul di nga baax jaamul yàlla te sellal moom la digal ay ndawam yow mi jullit te bëgg a baax royal rasul di nga baax jaamul yàlla te sellal moom la digal ay ndawam yow na ngay doo jaamu yàlla doo sellal ba pare te di nga dugg àjjana <laughs> Ibrahima nee na yow yàlla yal nag ma def man ak sama njaboot ummatan ñuy xeet nation muslimatan bu jébbulu la ka la wa arina mana wa arina yal nag ñu wan wa arina manasikana ay allimna kayfa najaha baytuk yow yàlla yal nag ñu jàngal yal nag ñu xamal naka la ba dundal sa néeg bii tanassukan wa taabudan ci jaamu la ak sellal la tabaraka wa taala tanassukan mooy won ñu nu ñuy jaamoo yàlla wa taabudan ak nu ñu lay wéetalee yow yàlla tabaraka wa taala xoolal Ibrahima tabax na néeg bi ba pare xanaa bi ko tabaxee ba pare yàlla nee na ko néeg bi sama néeg dafa waroon ñëw rek lal si jaaday allahu akbar Ibrahima Ibrahima du hasard yàlla ne ko yàlla ne yonent bi wattabi millata Ibrahim du hasard yàlla ne yonent bi mu ne ah ko toppal yoonu Ibrahim Ibrahima tabax na jàkk ji ba pare mais dafa delloo ñaan ne yàlla yàlla na ko def jullit moom njabootam ak mbopp xeetam yemu ci de mu ne yàlla yàlla nga ma won nu ma lay jaamoo gis ngeen parce que xam nga lu tax bu mu ko tabaxee ba def rek indi yëkk commencé ren bi ñu ne mi ne damay feetal ji mooy damay feetal lii comme gars yi ni ñuy def xërëm tuur xërëm commencé bokkaale wala samp estatiam commencé daan ne damay jaam xoolal Ibrahima dafa xaar ndigal dafay taxaw di laaj ndigal yàlla ne ko won ma arina manasikana won ñu nuñ lay jaamoo man ak sama njaboot won ñu nuñ lay jaamoo néeg baa ngi nii tabax naa ko pare na def naa lépp léegi nag li ci des mooy yàlla yow yaa ci wan nuñ lay jaamoo gis ngeen ndeke jaamu yàlla doo ñëw rek fent sa jaamu am ngeen tey tey la lan sànq sunu xutba bi dafa dagg deuxième xutba bi ci bidaa yi laa jëmoon tey mooy dernière ajjuma ci weeru ko tey la waa Sénégal di julli julli googu ñu tuddee fay faat ñu ne bi nga li nga julli wululoon temps yi nga nekkee bandi nekk kàccoor nekk xale ba ba nga nekk pa am 40 ans 50 ans 70 ans li nga julliwul woon yëpp tey ji àjjuma bu mujj bi boo jullee ñaari rakk yàlla baal na la lépp mooy fay ñaari rakk déggu leen allahu akbar ji suba imam bi day monté taxaw rek gaa yi julli di dem moom mooy jiite jiite ñu ne loolu mooy fay faat hadis boobu fan lañ ci ban la nekk mu ngi ci mu ngi ci Buxaari mu ngi ci alquran ngi ci buxaari mu ngi ci muslim mu ngi ci abu daawud mu ngi ci tirmisi mu ngi ci nisaay mu ngi ci ibnu maaja mu ngi ci ahmad ah mu ngi ci muwatta maliki fan lañ gisee hadis bi fay faat julli fay faat ñu ne li nga li nga li nga deful woon yëpp tey boo jullee ñaari rakk yàlla baal na la lépp julli fay ajjuma aj waaw julli mbooloo lañ koy def ajju bu bu mujj ci weeru koor lañ koy def ajjuma bu mujj daanaka 9 ba midi dañ koy julli di julli rek asalaamaaleykum yéen yàlla baal na leen yéen ñëw leen taxaw leen ne yàlla baal na leen na ngeen leen ñëw mbir na de ñaar rakk rek yàlla baal mbir mi yomb a torop torop torop torop sénégalais yi ni ñu gëmee bidaa buñ ko gëmee woon sunna kon réew mi mooy raw ci réew ni ñu gëmee bokkaale buñ ko gëmee woon yàlla kon wil billahi wallahi fu sahaaba yi teg seen tànk waaye bokkaale ak bidaa rek lañu gëm da gis ñuy sonn ci loo xam ne amul waxuma ci dafa bokk ci diine mais <laughs> la ilaha illallah dama doon la dama doon wax benn naar quoi ma ni ko in hunaaka fi Sénégal indana muslimuna la yusalluna wala yusumuna mu ne mu yaa cheikh fi haqiqati anta tuzijuni kayfa taqulu li hunaaka muslimun la yusalli wala yusum fanulaaka maaqul ma ni ko wallahi ya cheikh wa rabbul kaaba indana muslimuna la yusalluna wala yusumuna mu ne isan la tusammunahum bi muslimin ma ne ko hum yusammuuna anfusahum bi muslimin nahnu la nastatiu an nuxrijahum min al milla mu ne mu ne hum kay laa <laughs> al daxalu fil milla ndeysaan xoolal ñun xoolal yi ñu ni bi da ngay gis koo xam ne dafa bàyyi ñaari rakk fajar di tiitaroo ñaari rakk fay faar wala ñaari rakk yi ñuy def kolobaan man ñaari rakk yi ñuy def kolobaan mosuma koo tardi juróom fukki at a ngi koy julli firi li nga wax naar bi. kii xamal wax. foofu la dëkk kii. la wax ni kii yaakaaroon na. ndar waa. seen dëkk. ah yaa ko wax de. yaa ko wax ne man Colobane laa wax Colobane. gis ngeen de. nga gis fi ku julli fajar. di julli fajar di tiitaroo ñaari raaka yi ñuy def géejawaay te julli fajar jàpp boo mu ne juróom fukki at a ngi nii damay dem di yóbbu sama njaboot kenn du des ci kër gi dama koy tëj dama koy tëj dundu dem dee dem laa ilaha laa ilaha yàlla na nu yàlla jubal yàlla na nu yàlla wan dëgg wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu bàyyi mbokk yi foog ñu delluwaat ci sunu diine foog ñu delluwaat ci sunu alquran foog ñu delluwaat ci roy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu bëggee nite bu ñu bëggee nekk ay jullit foog ñu delluwaat ci ñaar yi teg yonent bi sunu kanam sëpp sunuy bët ak suñuy nopp alquran su yonent su alquran waxee ñu xool nan la ko yonent bi defee ñu defe ko noonu ñu noppalu waaw li gën a garaaw mooy jullit jàpp mën ngaa dund diine bu yonent yàlla Muhammad indiwu di julli ay fay faat di julli ay nisfa saabaan di am ay askar yoo xam ne kenn xamul foo jëlee askar yooyu soo jullee da ngay gis bu ñu jullee pare gars yi di rëdd basang yi kirij karaj karas karas ñii di ron ñii di fóon ay basang ñii di dessiné ay étoile ñii naan inna a'taynaaka al-kawsar fasalli li rabbika wansahar wa abtar ñii xëy suba di xëy nga gis waa ji day génn buntu këram inna ja'alna fi anaqim aghlalan inna ja'alna fi anaqim aghlalan fa hiya ila isqaani fahum laa fahum laa fahum laa ba fa lay ñetteel nga defam laa yubsiruun doog a takk nag ba mu dëgër takk génn nag dafa nag léegi nag am nga sécurité nag naa nag parce que yaa ngi takk dara ci biir ay sengoor ak ay deru jaan ak ay deru bukki deru béeg da nga takk takk ci mbagg yi takk ba fees laaj nga laaj ku ko weddi damaa xamul nga laaj ci affaire bi la bokk yonent bi nee na man allaqa tamimatan faqad ashraka man allaqa tamimatan fala atamma allahu la wa man allaqa shay'an wukkila ilayhi ku takk dara yàlla bàyyi la ak li nga takk mu xool moom la wala mbir mi la ku yàlla bàyyi li nga takk musiba dal la ku yàlla bàyyi ak béjjën wala yàlla bàyyi la téere walla der billahi nga alko ndeysaan wa man allaqa tamimatan takk gàllaaj yeneen bi nee na faqat ashraka gis nga moo tax ñu takk gàllaaj boo doon jàpp bi nekk ci dus bi nga tekki ko du wékk nga jàpp ba pare jàpp laa wax de nga génn deux dix mètres ne nii gisoo ko nga ni nii boo duggoon taxi da nga mu ne ah, nga ne ko demi tour mu ne nga ne ko mu ko fi ma jëlee woon waxal ñaata laa lay fay ma dellu mu ne nga ne ko samay samay samay gàllaaj laa fàtte noonu nañ dem mu ne la nu damay fay xanaa sama xaalis laa yor gis nga gëmoo yàlla laaj nga gëm est ce que gàllaaj fi mu nekk da ngaa tiit boo ko takkul danga ngaa tiit ne gàllaaj yi ñoo lay aar léegi yàlla mënatuloo aar réseau bi la dox sa diggante ak yàlla yàlla coupé na ko yàlla bàyyi na laa gàllaaj hadis bi nee na ana أغنى الشركاء عن الشرك man ashraka ma i say an taraktuhu wa shirkahu man yàlla damaa doylu man yàlla ku doylu laa képp ku ma boole keneen wala leneen yàlla nee na ma bàyyi laa kooku ma xool man la wala moom daa la bàyyi ko mbokk yi bu ñu yàlla bàyyi suñu bopp ñu àlku de bu ñu yàlla bàyyi ñeneen ñu àlku de eh yow yàlla bul ñu bàyyi suñu bopp bul ñu bàyyi ñeneen ñi ñoo xam ne mënuñu xamuñu amuñu gis ngeen Ibrahima ku dégg diine la ñaan na yàlla defar njabootam ñaan na yàlla def ko jullit ñaan na yàlla def xeetam jullit waaye ñaan na yàlla na ko yàlla wan nu muy jaamoo yàlla moo tax yonent bi saa salaam waajee aj bu mucc ci naaj bu tàng ba ca Arafat naaj baa ngi tàng jër naaju Arafat naaj gënu koo tàng saxaaba yi yërëm yonent bi ñàkk baa ngi wàcc saxaaba yi xool yonent bi yërëm ko ndeysaan ñu daal di jël am ko daal di jël li mu li mu li mu mbalaanoo woon xam ngeen koy armal ñaari sër ngay yor da ngay woddoo benn bi benn bi nga teg ko ci sa bi daal di ñu daal di jël benn mbalaan bi ñu ut ñeenti bant ñu takk cati sër bi mu nekk ñaata bant ñeenti bant ci ñaata koñ lañ ko takk ñeenti koñ mu daal di doon mbaar ndeysaan ñeenti saxaaba ñëw daal di koy tiimal yonent bi saa salaam loolu ngeen daan gis jamono bu njëkk ba ci jàkka yi bu ilimaan bi di xutba ngeen gis ay paa ñëw daal di koy dindi yëkkati benn sër ci kaw waaye nag yi dañoo dem ba jàgg di ko def verte zone rouge wala wala dañoo dem ba jàgg dara boobu ñu koy jël di ko def ko zone rouge tiim ko nag ndeysaan sahaaba yi tiim yonent bi xam nga yéen fi lu doon wax xuzu anni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla ci man ngeen di xool nu ngeen di jaamoo yàlla ci man bi mu jullee ba pare lan la wax sallu kama raaytumuni yàlla ne wa ma ataakum rasul fa lu leen jël leen lu leen tere bàyyi leen yow yàlla arina yàlla nag ñu manasikana nu ñuy jaamoo yàlla wa tub alayna yàlla na nga nangu sunu tuub ñu ngi ni di tuub gis ngeen Ibrahima tub alayna wa fitna li tawba iza zallalna waqbalha minna ndeysaan xoolal Ibrahima tabax na tabax bi ba pare ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan njabootam ñaanal boppam ñaanal réewam ñaanal xeetam ñaan yi won ñaan yàlla du ko yàlla di wane mu jaamu yàlla ba pare am nga Ibrahima yow ci de mu ne yàlla tabax bi ma doon tabax yàlla bu fekkente ne am na nu ma ko tabaxee te neexu la yow yàlla yàlla nga ma baal wa tub alayna yow yàlla yàlla nga nangu tub bu fekkee ne am na lu ma ci def ci tabax bi ma doon tabax wala am na lu ma fi xalaat wala am na lu sama xel dem wala birig yi tege naa ko noo ko bugulee wala carré carré bi ëppante na wala wala faat naa fi waxtu wala wax naa fi lu war a wax maag sama doom ji wa tub alayna wala waxu ko wa tub alayya de wa tub alayna yal nag ñu baal ñun ñaar buñ fi defee benn manqué manqué li mooy baynal rajaawal raxba rajaawal xawf loolu la julli di def mbir yi ba pare ndeysaan di ñaan yàlla tolof loola moo tax gis nga boo sëlmalee bu ilimaan ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lan lañ ko sant mu wax yow mi julli lan lañ la wax nga wax waxal astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah jéggulul yàlla ñetti yoon lu tax mooy xel mi dem na génn na fi ci julli bi bi xalaat na fi leneen ah amaana rukkoo bi ni nga ko defee du noonu amaana sujjóot bi amaana njàng yi juum nga ci amaana amaana amaana kon jéggalul yàlla gis ngeen parce que kenn du def ba pare daal ne non man li ma def noon la mani dama ko def ba mun de yàlla rek moo xam di yow kay da daan def naa rek waaye ni ma def ma ni la kenn mënu koo dindi yàlla rek moo xam ndax yow li nga def noonu la wala du noonu rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kaana lil awaabina gafura yow yàlla wa tub alayna yàlla na nga nangu sunu tuub yàlla nang ñu dëppale ba nuy tuub sunuy bàkkaar julli day tuub yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha dee leen tuub dégg jëm ci yàlla yàlla ñaata yoon la wax nañu tuub yàlla ñaata yoon la ñu wax ci quraan nañu tuub gis nga yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam saar bi mujjee wàcc ci moom yàlla daf ko ne na nga tuub fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawwaaba jéggalul yàlla sàbbaalal yàlla ñaanal yàlla yonent bi gis nga bi ay saar bi wàcce nee man bis bu nekk dinaa def astaghfirullah di jéggulu ci yàlla di tuub dem ci moom juróom-ñaar yoon beneen riwaaya bi ne téeméeri yoon yonent bi buy wax yàlla na ko baal jub téeméeri yoon kon ñun ñaatal lañu war a wax yàlla nañu baal yi yonent bi buy wax téeméeri yoon yàlla baal ma ñaata yoon lañu war a wax yàlla nañu baal muhammad ki nga xam ne jéggal nañ ko ay bàkkaaram yi mu njëkk yi mu am ak yi ñëwagul ay dog yàlla mu ne inna fataxna laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma taaxar yàlla ne ko du ma la jéggal say bàkkaar yu njëkk ak yu mujj terewul mu ne bis bu nekk dinaa def astaghfirullah téeméeri yoon wala ma def astaghfirullah juróom-ñaar fukk soixante-dix fois te moom baal nañ ko xam nga yaay Aysa bi mu ko ne yonent su sax doo noppalu lan la wax afala akuna abdan shakura afala akuna abdan yàlla moo ma defalul lu mu defalul kenn man tam dama koy jéem a defal ko kenn lu defal loolu mooy sukuru yàlla baal santal yàlla xam ngeen ne tey bu fekkoon ne fii ci Sénégal la yàlla wax kii baal naa ko billahi wallahi waa ji ci piliyaanu or lay tëdd ne nii fii cinq nekk fi fii cinq nekk fi mu tàllal tànk bi cinq teeku mu tàllal tànk bi cinq teeku ku nekk di bës ndeysaan di fokk man loolu gis naa ko gis naa benn waay boo xamante ne buntu këram lay toog ngandum piliyaan mu tàllal tànk bi nii tàllal tànk bi tànk bi cinq personnes tànk bi cinq personnes loxo bi cinq personnes loxo bi cinq personnes mu ne nii nag ndeysaan gars yi di bës di fokk baaraay mu ne nii ñëpp wër ko nag gars yi di bës boo ñëwee asalaamaaleykum waaleykum salaam nga raam ñëw toog ñu ne la xëccal wenn baaraam nga xëcc daggal we bi nga dagg li Yunus doon wax <laughs> mu ne am na ñoo xam dañu doon fóot benn jigéen ndeysaan bu doon fóot yëre sérif buy fóot yëre sérif bi de mu ne waa dëkk bi ñëw naan ko neene am nat imi cohli poocino poocino mballamin heen waaw <laughs> seen dëkk la mu ne mu ne dañuy fóot yëre sérif bi dafa tilim waa dëkk bi ñëw ci maire bi fóot yëre bi naan ko póotin bi dañ koo soxla póotin bi bul ko tuur soxla nañ ko. pour naan ko pour naan ko waaw. Eh. poutine poutine ah poutine. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. poutine poutine nit di ko naan ndax yaakaar ci poutine bi barke. waaye poutine lan la acide ak saabu ak tilim ak ndox ak xemeeg lu kenn xamul nga dem naan ko. laa ilaha illallah ñii sax ñoo nee xel kuy naan potin yaa nee xel billaay kuy naan potin yaa nee xel waaye Sénégal waxuma la potin waaye am na ñoo xam ne bu ñu gisoon dem àll ba kilifa gi dinañ ko lekk ndaxuma leen de yàlla baax na sax kenn du ko def ci biir mais buñ ko defoon ci pot ñu jox kenn demal nga turi da nga gis mu lekk ana mu ne lekk naa ko lu tax damay barkeelu ci def ci lu ëpp ci ay junne waaw xam nga wazkurullaha dhikran kathira tudd leen yàlla lu bari wala comme ñu ne salaatul leyli masna masna foofu moom dañuy bàyyi jaam bi rek dafa am azkar yoo xam ne yonent bi da koo tënk am yoo xam ne tënk ko yi mu tënk nga tënk yi mu def li ci def nga def ko yi nga xam ne tënk ko nga boyal ko loo ci mun a def rek boo koy def na ko sellal comme yàlla ne tudd leen yàlla lu bari yonent bi ne def am na riwaay yu mu ne def naa juróom-ñaar fukk def naa téeméer moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu def téeméer kon yow war ngaa góorgóorlu te moom yàlla baal na ko yow yàlla waxul fenn baal naa su fekkee moom mooy def téeméer lu ñu la bëggoon rek mooy yow moom kon bis bu nekk sax ci téeméer boobu yow waroo tëb waroo manqué wala juróom-ñaar fukk yooyu waroo ko fàtte bis bu nekk war nga comme moom yàlla baal na ko ba pare borom bi tabaraka wa taala mu ne wa tub alayna yow yàlla yal na nga nangu sunu tuub man Ibrahima maak sama njaboot yal na ñu dëppale ba ñuy tuub Nabi saa salaam jàngale tuub lan mooy tuub doomu aadama booy tuub koy tuubee yemu ci moom mbaa Ibrahima mu ne yàlla innaka yow anta yow yàlla ba tey attawaab yaay nangoo kaanu tuub arrahim yaay yërëm jullit ñi àllaaxira kon yàlla subhaanahu wa taala comme yow yaay nangu tuub man de maa ngi tuub di dem ci yow gis nga ñun suñu diine yàlla rek ngay tuub doo tuub ci keneen doo lekk doo def bàkkaar ba pare baali samedi ñëw dimanche dem rek ñu daal di raay sa bopp daal lay saxal benn tàndarma ne la yàlla baal comme gars yi li ñuy wax xam ngeen loolu am na xam ngeen loolu am na ci lislaam ngi koy def mooy ñooñu ñuy saxal tàndarma wala saxal benn bonbon la yàlla baal na sa bopp ne la yàlla baal na la sa bàkkaar amiin xam nga ñun nan lañ koy defee ah ñun dañuy woy ba woy yi neex rek ñu daal di laaj sarax bi gars yi daal di joxe ñu ne loxo ci kaw loxo ci kaw bàkkaar ci suuf di ko boo yëgee sa loxo rek bàkkaar wad wadd loxo ci kaw bàkkaar ci suuf gars yi daal di yëkkati loxo loolu yomb na yëkkati sa loxo rek bàkkaar wadd bàkkaar yàlla nee na maa koy baale wa man yaxfiru zunuba illa allah yàlla nee na kan mooy bale bàkkaar ku man te kullu bnu aadama xatta wa xayrul xattaaina tawabin doomu aadama boo xalaat rek day def bàkkaar fii may wax ak yéen ku ngeen xalaat rek defkatu bàkkaar la waaw kooku kooku ngay xalaat moom la <laughs> kooku sa xel di moom la defkatu bàkkaar la xam sa am na ko ci kum dem kooku laa wax waaw moom la def bàkkaar bu ngan waxuma ko de yen bee ko wax yonent moo ne kulli ibni aadama doomu am naa bàkkaar yu jeex conteneur ay njaga njaay la ilaha illallah ci laay ci yendu di ci fanaan bu ma yàlla jégalul lakk ma kulli ibni aadama xatta yonent bi nee na bépp doomu aadama ka bakkaar mu ne xam nga kan moo gën a baax ci defkatu bakkaar yi mu ne tawwaabin kii tuub xam ne tooñ na yàlla mu si jóot eh yàlla man damaa ñàkk jom rek ku bon laa ku yées la bis bu nekk nga tere ma ma ñàkk jom def ko waaye yow yàlla samay bakkaar du la lor mu naa mënu maa def ba ay bakkaar ba wàññi la dara mënu ma laa jaamu it ba yokku la kon nag bu ma topp jéggal ma dégg nga mu ne la jégal naa la nga siggi yenn saa yi nga tuur ay rongoñ ba baqate yi génn ñu la papa looy jooy damaa tooñ yàlla nijaay looy jooy damaa tooñ yàlla ku tooñ yàlla jarul jooy abdullahi ibnu mas'ud xaw ma ibnu abbas ibnu mas'ud la yaakaar da wax law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al su ngeen xamoon samay bàkkaar wala sahaaba yi la doon wax de moom Abdallah ibnu Mas'ud mu ne sahaaba yi bu ngeen xamoon samay bàkkaar di ngeen ma duur ay xeer ba ma dee allahu akbar ñuy wax seen bopp kon ñun nag nga xam ne boo toogee sax boo wooree sax nekk ci léegi yàlla bi di nekk ci bàkkaar dama góor gi wax mu ne naa féex ndax ma may daw rek sept heures daw rek ñu dugg ci néegu yàlla bi tëj ndax sax du gis lu bon boog wala du ma ko dégg waaye léeg-léeg sax nga dugg ci ndeysaan benn baat benn musique fekk la ci jumaa nga tëdd mu ndong ndong ndong fekk yaa ci biir jàkk ji toog nit ñi bañ même armée yi dañuy suul nit nga dégg musique bi di takarnaas kene kene kene kene kene ñu naan gasal gaay yi ngas de musique baa ngi ñëw dëkkandoo ñu ngi teg musique musique bi armée yi néew yi sax léegi naa leen nit ñi ñoo nit noonu léegi daal musique bi ko ci armée yi nan yàlla yëpp loolu anta yow attawaab yaay nangu tuub arrahim yaay yërëme rabbana yow sunu borom maa ngi lay ñaan wab as yal na nga yónni fiihim ci ñoom rasulan yonent minhum bu bàyyeekoo ci ñoom yatlu buy jàng alayhim ci ñoom ayatika sa aayey wa yuallimuhum mu leen di jàngal alkitaaba téere wala hikmata ak sunna ñaanu yonent yàlla muhammad a ngi ni ibrahima yonent yàlla Muhammad ñaan la gu yàlla nangul waa màkk Ibrahima ba mu tabaxee kaaba gi ba pare ñaan yàlla yàlla def ko ummatan muslima mu ñaan yàlla yàlla ko yàlla nangul tuub dafa delluwaat ñaan yàlla ne yàlla maa ngi lay ñaan sama njaboot gii ma fii rabbana yow sama borom wa ba as fiihim yàlla na nga yónni ci ñoom wa ba as yónnil fiihim ci ñoom rasulan yonen haza dua istajabahu llahu taala wa huwa muhammad huwa ma talabahul ndeysaan ibrahima yàlla dafa nangu ñaanam xoolal ki tabax néegam ba tabax néegu yàlla ba pare ñaan yàlla yàlla daf ko jullit moom njabootam mu ñaan yàlla yàlla wan ko nu muy jaamoo yàlla doyoon na waaye mu ne yàlla yàlla nga ci dëkk bii yàlla nga yónni ci gox bii ci réew mi ci nit ñi ci sama njaboot yi yàlla yàlla nga fa yónni rasulan yonent fu muy bàyyi ko kaw asamaan mu ne déedéet fihim rasulan minhum yonent boo xam ne ci ñoom lay bàyyee xam ngeen lu tax yàlla bu yónni yonent du yónni malaayika du yónni jinni du yónni dëmm du yónni nooxóor du yónni xar du yónni kuy du yónni mbaam du yónni fas du yónni pitax ñan ñoo nekk ci kaw suuf ay nit yàlla nit lay yónni bu yàlla yónni benn malaaka malaaka bi ñëw naan ragal leen yàlla ñu ne ko gis nga malaaka bu ñu sonal xam nga yow soo gisee nga mën a ragal yàlla yow doo lekk doo naan doo nelaw amoo jabar amooy doom dimbali mu yàlla day yónni koo xam ne ci réew mi la juddoo waaw muhammadun basarun mbindeef la wulida kama wulidal basar waa aasa kama aasa albasar wa maata kama maata albasar walakin afdalu albasar Muhammad dafa judd comme nit ñi ni ñu juddoo léeg nga dégg ñu ne diw judduwul bu kenn wax dafa juddu fu mu dafa prolongé dafa bën na asamaan daanu ci suuf léeg-léeg nga dégg ñu ne diw bu muy juddu dañ koo solal ay yére mu ngi yor benn lettre ñu bind ci almaktuum ah falaa nag mooy lu ñu nëbb dañ koo nëbb moom moom bi judd <laughs> ndeysaan tukulóor yi bi ñuy jay El Hadji dañu ne nee na makko nde jibi tamon nde jibin tamon nde jibin tamonde ko fajiri wonno o habbiri o juuli darde ɗiɗi fajiri cukalel ngel jibina o ummi o juuli fajiri inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mas ngaa gis jigéen bu am doom buy julli a ah, ñoom sax fiq daaneel na leen fiq daaneel na leen ndeysaan moo tax isa kunta kazuban fa kun zakura booy nekkee fenkat da muus nag sinon nga fen fen boo xam ne doo ko mën a dindi mas ngaa gis jigéen bu kàbbar julli ñaar rakk fajar am doom jógaat julli fajar jigéen boo amee doom du julli ñoom fiq moo leen daaneel iddoone arasande ar daaneet nji iyam bi muy jul bi muy juddu àndul ak loolu yëpp jayaate rek di jay rek di jay di jay jël sa nit di ko jay ku baax la ku baax la jaru ko doy na mais il faut nga jéem a loo xam ne yonent bi sax def ko yonent yàlla Muhammad dañ ko jur Amina da koo ëmb dégg leen ñu ne bi muy am juróom-ñaari weer juróom ñaar ñaari weer ci biiru yaayam. dégg leen loolu jàng bi muy am ñaari weer ci biiru yaayam la baayam faatu. mu juddu. keneen moo ko nàmpal Halimatu Saadiya dañ ko jox ween muy nàmp ni nit juddoo la yonent bi juddoo mu dund ni nit ñi dundee am ay problème di toog sax yenn saa yi tàkk këram yeneen doon toog weer cin du tàkk këram bu mu xiif du mun a nelaw yenn saa mu génn ndeysaan dem sa sahaaba yi yi daal di rey dara mu daal di lekk mu dagg ci yàpp bi ne dem leen jox Fatima weer a ay problème ay doomam di dee muy jooy ba yàlla di ko wàcce inna ataynaaka al kawsar sahaaba yi gis ko muy suul Ibrahima di jooy ñu ne ko ah yonente da ngay jooy mu ne waaw damay jooy kay ñu ne ah di yaa taxoon bu kuku dee bu kenn jooy mu ne déet rongoñ day tuuru làmmiñ bi du génne lu dul lu neex yàlla xol da koy naqaru xol da koy naqarlu rongoñ tuuru waaye gémmiñ du wax lu dul lu yàlla lool laa wax ndeysaan moo tax mu tuddee ibrahim al mahzun wa inna ala firaqika la mahzun ñoo ngi nii di tàqandikoo yow yow Ibrahima tey ndeysaan waaye ñu ngi nekk ci naqar yonent bi di ci bàmmeel bi ñu gis bët di tuur rongoñ ndeysaan ne leen li yërmande la bu yàlla def ci doomu aadama kenn ne waaw rongoñ xol bi di ko naqarlu waaye gémmiñ gi du génne lu lu yàlla bëgg loolu lañ bëgg waaye di salleer weeyoo tey ñu dee alku torox nañ ñun fuñ jëm ay fuñ jëm fu ngeen jóge woon ay ñun kuñ ñuy bàyyee ana yàlla ndeysaan léeg-léeg nga daje ci ku réew noppil noppiwuma maa tay yuuxul yuuxul yuuxul ba teppee ko nga ndax ki ngay jooy dina ñëwaat ñàkk yar rek ak ñàkk teggin ak ñàkk xam lislaam loolu doom moo ñu dal waaye lislaam lim la wax leer na xol bi da naqarlu rongoñ yi di tuuru ci bët waaye gémmiñ gi du génne lu dul yàlla gërëm mooy lan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahuma ajirna fi musibatina waxluf lana xayran minha loolu mooy ndeysaan loolu mooy lañ la wax nga wax ko boo amee naqar rabbana yow sunu boroom wabaas yàlla na nga yónni ci ñoom rasulan ndaw yonent minhum bu bàyyeekoo ci ñoom yonent bi na bàyyeekoo ci ñoom bu mu jógee kaw asamaan bu mu génn ci biir suuf bu mu nekk njaay àll bu mu nekk malaaka nañ ko jur comme nit ñëpp di juroo na bàyyeekoo ci ñoom bu mu bàyyeekoo ci keneen yeneen nit yattulu nay jàng alayhim ci ñoom aayaatika sa aaya yi yow yàlla gis ngeen moo tax aaya yi ñooy defar nit ñi mooy quran téere bi yatul na jàng alayhim ci ñoom aayaatika sa aaya yi wa yuallimuhum na leen jàngal alkitaaba téere bi gis ngeen nit ñi leen di baaxal mooy jàng ak yar jàng yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaaba mal kitaab alquran wayu wal hikmata ak sunna alhikma as sunna wa asraari shar wa isaabati fil umuri kulliha ndeysaan gis ngeen moo tax sunna bu yàlla jox yonent yonent di ko firi alquran sunna moo firi quran benn waaye dafa ñëw di jéem a laaj benn sahaaba bu mag ne ko waa yéen lan moo tax munuñoo ja loolu mooy loolu mooy mbirum xadafi te xadafi yàlla da koy toroxal yaa yi weddi woon yàlla yëpp yàlla da di toroxal te li ngeen di gis ni du hasard yàlla du def dara pour xare bi dafa defoon livre vert nag nit ñi nañ jàng alxuraan nañ bàyyi hadis hadis baaxul loolu mooy loolu la sun moom nit ñi nañ jàng alxuraan nañ bàyyi hadis parce que hadis mooy yàq diine bi ku ñëw indi sa hadis ne yonente bi ko wax loolu la wax baax na gis ngeen keroog di ko gars yi songo li mu njëkk wax mu ne gis ngeen yéen waa Europe yéen waa Amérique yéen a ngi di ma daaneel mais bés bu ngeen ma daanelee islam moo fi taxaw kon islam baaxul kon léegi bàyyi leen moo ndax man maa gën lislaam loolu waaye ñoom ñëpp yàlla toroxal na leen tey ana Ben Ali ana Moubarak ana Abdallah Salih bu ñu bu ñu ndullee Xadafi ba mu daanu ñu daal di attaqué Bachar al-Assad comme dañu bañ lislaam taxaw bëgguñu jaamu yàlla yi nekk ay jaamu yàlla dañu jàpp jullit ñi di rey ci kaso yi di rey borom xam-xam yi di rey jullit yi yàlla seen seen waxtu jot na waxtu wi la leen yàlla doon toroxal waaw nguur rek benn nguur rek mooy sax benn nguur benn nguur kenn dong la nguuram sax mooy wax subhanahu wa taala ñeneen ñëpp sa ngi ñëw yàlla daj sa nguur mu daanu mel ne mosutoo exige gis ngeen Moubarak keroog bi ñu koy gisee ci lan lañ ko teg ci lan ci lal ndeysaan mënul sax toog mu tëdd nekk ci sukuraat di bëgg dee ñu koy jugé ñaata at lañ ko tëj dañ ko tëj dundam giiru dundam ci koo xam ne la ilaha illallah ci koo xam ne bu daan génn sax weñ yi duñu naaw weñ yi weñ yi dañuy taxaw dootu duñu naaw ba mu dem ba ñëwaat weñ yi doog a naaw xool leen Ben Ali kenn ñemewul woon noddu Tunisie nodd noddu julli kenn ñemewu télé yi kenn du ci teg nodd rajo yi kenn du ci teg nodd kenn du fa am sikkim kenn julli waxtu yi juróom jàkk xel xalaatu ko te suba tisbaar takkusaan timis gee kenn ñëwu koon def Tunisie bis boo demee suba nga dem tisbaar ñu ñëw ne la yow yow yow yaay kan yow la yàlla yónni pourquoi ngay julli ñaari waxtu di ko tegale attention mun la fi gisaatee ñaari waxtu ci kaso ngay dee waaw ah? kulliyatu hadis da ngay gis ku sol paccal ay weenam ñëw naan darsul yow mii almadd alhadis almawdu alwudu fekk mi ngi sol mini juróom bopp ne neen yaa ngi hadis jigéen ji sol mini moo koy jàngale nga wax ñu ne la non c'est la laïcité ñun duñu ay islamiste ñu tere Tunisie ku am ñaari jabar benn waaye dem takk ñaari jabar ndeysaan ñu convoqué ko tribunal procureur général boo ñëw ne ko yow il paraît sa aaw mu ngi dëkk fële mu ne waaw ñu ne il paraît nga takk ñaareel place sàngam am na ñu la topp ba gis la sama gel la am nga sens am nga sens ne am nga sens sama nekkaale la ne am nga sens bu nga ba ne sa jabar la kasa dee ana waa jooju tey dàq nañ anam dem na nëbbu ji Arabie Saoudite yàlla rek la nguuram ngiru lañ ku yaakaar ne boo nguuroo loo neex nga def yàlla dalay xaar rek ngay def lu la neex yàlla mun na koy daaneel mais yàlla mooy buur bu yàkkamtiwul moo tax mu tudd as ku mën a muñ ku mën a muñ yàlla yàkkamtiwul dalay bàyyi nga nekk ci la rek gars yi di la jay bu ñuy bu ñuy ñëwee ne la yow yaa gën ñëpp ñii ñëw ne yow kenn la ñii ñëw ne la amoo moroom bàyyi leen ko mu liggéey bàyyi leen ko mu liggéey nag yéen ko fal waaw ba fal ko en vie wala xarit bu ñëwee Sénégal lan la wax fal leen góor moom ma nga ne ñuy folli kenn falu ko en vie ma nga ay bomb di ko folli te am maa xarib ay fan yu néew mu folleeku yàlla wax xamal ko boppam ne ko doo tus xam ngeen lan la doon wax ahlu sunna yi kilaab kilaab la leen tuddee kilaab ay xaj mu ne da doon xaj yi ma leen fi bàyyi dañuy yàq bi di rey li mu rey ci ahlu sunna kenn xamul nu mu toll mu baarak moom mu moom mu daanaka ak Gamal Abdel Nasir donc moo ko ëpp lu mu rey Gamal Abdel Nasir kenn xamul lu mu rey ci ay sunnit l'islam su ngeen gisee mu mel nii li ñu rey ci ay borom xam kenn ñu tëj ci ay borom xam-xam fii ci adduna bi kenn xamul nu mu doon tëj rey exilé te xam nga lu garaaw mooy julli ñi dañuy tëj di dàq tubaab yi di jël di di denc ñaata borom xam ngeen di dégg Londres tey Londres ñi dëkku ñan la julli yi yooyu tubaab yi fat yéeféer yi fat naan bu ngeen ko bëggul jox leen keroog ba ñuy rey Seydou Senghor sax wax na wax na wax na Gamal Abdel Nasser rey kii ndax kii loi Égypte dafa ne ku am 60 ans kenn du la rey mu ne ko ba mu des kii illa haza am buur yoo xam ne xoolal fa Faysal bun Abdul Aziz avion la yónnee avion avion mu naaw diggante Makka ak Arabie Saoudite mais bi ñu yëgee yónnee na ci guddi gi lañ ko rey ko pendre yàlla def guddi guñ ñu koy pendre ndeysaan mu gént gis yonent bi yonent bi ñëw yee ko ne ko hani an laka ya said sahaada hani an laka ya bi sahaada ya said sayd xut tey da dañ lay rey mu ngi gént yonent baa ngi sol yu weex war ci fas bu weex ne ko tey ci man nga jëm yow said said man nga jëm mu nelaw yeewu tuuti rek ay minit rek ñu fëgg bunt bi gaa yi ñëw ak seeni blendeeg seeni lépp mu ne leen lan la fu ngeen ma jëmee ñu ne dañ lay changé cellule mu daal di ree ko ma jóge ci cellule addina yi jëm cellule aljanna gaa yi ne ko noo xamee loolu mu ne léegi laa tàqalikoog yonent bi sallallahu alayhi wa mu jël si sol yére yu weex war ci fas bu weex léegi léegi léegi laa tàqalikoog yonent yàlla muhammad yooyu ne ko ndeysaan waaw dañ lay rey de mu ne man ragaluma de ñu ne ko léegi dañ lay ñaan rek da nga dañ lay indi télé rek en direct te waa ji may wax ni li doon ci julli di tey dañ ne kii yéeféer la safara mu ngi safara dafa murtat suuf ñenn ñi dañuy bind ay téere di ko xas ñenn ñi di ko saaga ci waajoo xam ne dañ ko tëj ci kaso ba mu jëlee fa jabar waa ji ci biir kaso la nekk tafsir benn téere tudde ko zilalul quran même téere bu bu amee erreur li ma doon wax ay mbokk ma ne nii da ngeen a ndof ndof weesuwul ngeen toog di di di critiquer ku tafsir quran koo xam ne ba muy tafsir ci kaso la binde téere bi ci kaso koo xam ne amul benn marja amul référence bu muy référé wu koo xam ne tey bu ñu ko indi woon ci benn bibliothèque ne ko tafsiral ma ramal leen yéen waa bu ñu ko indiloon bu ñu ko dugaloon tey ci benn bibliothèque ci bibliothèque islaam yi ñu ne ko tafsiral ñu Qur'an bu tafsiree ba pare téere bi kenn du ko liir téere bi day sut ñëpp waa ji zilaal Qur'an bi mu tafsir amul marja ci xelam dong la ko doon day sàddi sut dafa mokkal alquran dugg ci biir kaso bi di tafsir Qur'an téere bi ñaata tom la tom mu pare tuddee ko fii zilaalil Qur'an ci keppaar gi laa toog di tafsir fi zilalil quran bi ko gaa yi génnee ci kaso bi daal di koy yéegal ndeysaan ci benn pëjum ne dañ koy rey ñu bëgg a takk loxo yi ci ginnaaw mu ne pour lan ñu ne mboo dañu yaakaar ne da ragal mu ne déedéet bu kenn takk sama loxo gaa yi jël buum gi bëgg a dugal ci baat bi mu ne mun naa ko dugalal sama bopp bàyyi leen ma dugal ko sama bopp voilà loolu gaa yi ne ko dañ lay génne télé en direct rek ñu def la rajo en direct ñëpp dégg nga ni man mii dama juum man Saïd Xutba li ma waxoon wax dëgg yàlla maa ngi koy jéggulu waa Égypte yëpp nañ ma baal léegi maa ngi ci ginnaaw président la république bi na ma ñëpp baal ñu ne ko boo ko waxee rek ñu def la ministre ñu baal la def la ministre ah lum waxoon ba ñu ne dañ koy rey ci loolu laa jëm nii waxal nañ la baal rek dëkk bi na la baal ñu baal la mu ne leen sama baaraam bi chaque jour su may julli dama koy joxoñ muy wax ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loxo bi mënu ma cee wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba pare muy téye xalima muy téye big ci état bu layik mënul nekk da ngeen dox loxo bi wax ashhadu an la ilaha illa ba pare di signeel état bu layik état nga koy signeel nga naan te yaa ngi naan ashhadu an la ilaha illa allah wa pare état bi moom nee na sàngara nañ ko jaay na jigéen ñi njaaloo na jigéen ñi def yaramu neen nañu lekk riba nañu ubbi bank riba bu kenn attewoo l'islam ba pare yow ngay signeel état boobu ndax chaque jour ma joxoñ sama baaraam bi bu may julli ne ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah gars yi ne dañ lay rey mu ne ragaluma dee ñu jël buum bi bu góor dugal ci baat bi mu ne leen mun naa ko dugal sama bopp mu daal di jël buum bi daadi di dugal ñu ne ko sa wax bu mujj pour ñu bëmax bërigo bi nga daan lang dee mu ne rabbi anni maghlubun fantasir yàlla dañ maa tooñ yàlla nag ma fayul ñu ba bërigo bi mu daal di lang dee ba léegi kenn xamul fu ñu ko suul ba fii nii kenn du gis bàmmeelu Sayid Qutb loolu taxuñu woon jóg sax mbokk yi euh, borom bi tabaraka wa taala mu ne ibrahima nee na rabbana yow sunu borom wabaat yàlla na nga yónni fiihim ci ñoom rasulan yonent minhum bu bàyyeekoo ci ñoom yatlu muy jàng alayhim ci ñoom ayatika sa aaye yi wa yuallimuhum mu leen di jàngal alkitaaba téere bi wala hikmata ak sunna wa yuzakkihim mu leen di setal ngeen jàng ak tarbiya mooy ànd éducation ak éducation ak enseignement waaye éducation sans enseignement musiba la enseignement sans éducation musiba la léegi nag yéen ngeen am ministère lan éducation nationale dindi leen éducation bi wax leen enseignement national ndax éducation amatul ci école yi wala éducation am na fa éducation am na fa nañ dindi léegi éducation bi gis ngeen njàng ak yar ñooy ànd yàlla mu ne wa yuallimuhumul kitaaba wa yuzakkihim baatu tarbiya baa ngi ni mooy taskiya setal nit ñi nit ñi bu ñu leen di jàngal pare dañ leen yar li ñuy jàng ñu jëfe ko mais da ngay gis jàngal nit ba pare ne ko nag dëgg-dëgg lii laa la jàngal waaye nag mooy yenn conférencier yi lii la yàlla wax waaye man nii laa mel loolu mooy la ah man kat lii la yàlla wax waaye man nag gis nga eh, damay tux damay naan damay <laughs> waaye nag yàlla moom lii la wax nag yàlla lii la wax loolu mooy la kon kay amoo droit wax ata amuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum ya ayyuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafalun ixwani innaka yow yàlla anta yow al aziz yaay ki not sa nguur al hakim yaay ki xel aaya yaa ngi ni encore aaya bi fan la jeexee al aziz yàlla mooy ki not ci nguuram gis ngeen liñ doon wax sànq nguur nguurul nguur yàlla de dina jeex te yàlla nguuram di ku ko ci rek mooy am ku ko ci neexul du am mu al aziz mooy ki not ci nguuram alxakim mooy ki xereñ li ko ci neex rek mooy am xam ngeen luy xakim pour ngeen xam baatu xakim mooy ku xereñ xoolal sa bopp kan ci ñun moo xool boppam fi mu toog kan ci ñun fii ñu toog moo xool boppam acca nañ dem sa bët yi si ko yàlla def neex na la neexu la demal ñu opéré ko ñu dindi ko defal la ko feneen fi nga bëgg sa ñaari nopp yi demal nga ni docteur yi sama ñaari nopp yi fi mu nekk neexuma dama bëgg ngeen andi ko ngeen defal ma ko feneen nga wax fi nga bëgg sa bakkan bi nañ ko dindi nañu dindi sa bëñ yi ñu remplacer ko fi nopp yi nekk ñu jël bët yi def ko fi bakkan bi nekk ñu jël bakkan yi def ko ci suufu jumbax bi boo génnee rek ñu ne la pa mattee ngi nii wala meer mattee ngi nii yàlla mooy hakim lu mu def fi mu ko def foofu la gis ngeen jumaa ji fi ñu nekk wala sunu yére yi ñu sol wala moket yi ñu toog wala tabax yi ñu wër léegi léegi mën ngaa wax ne tabax bi de wax dëgg yàlla bu ñu ko nii nii lay gën a rafetee mais nii bii def nii bu ñu ko defoon nii nii wala yére bi mu nekkoon couleur bi nii la wala monté bi wala jaaro bi wala wala wala mbaxne bi bu ñu ko defoon couleur bu mel nii ci lay daax waaye yàlla lim la def nii <coughs> xoolal nopp yi fan la war a nekk fi mu nekk rek foofu la war a nekk tànk yi boo ne woon tànk yi ci mbagg yi la war a nekk loxo nekk ci suuf kon sooy dox looy nuru am na sax yenn gis kuy entraînement teg loxo ci suuf tànk yi nekk ci mu naan nii bopp bi nekk nga gis ko mu naan nii <laughs> dégg nga ko xoolal yow miy xam nga ne noonu mu nekkee sax du noonu sa gémmiñ gi fi mu ko yàlla def ndeysaan xoola boo attablé nga ñëw ci table ñu tegal la serviette nga teg ñu tegal la kudd ak fourchette tegal la ndogo bi nag nga daal di toog nga jël fourchette bi mais mais mais droite bul ko jël gauche mooy jël gauche jël paaka bi mais droite su daggee daal di cap lekk yow doo doo seytaan la taakulu bi simaal yow yoral fourchette mais droite yoral paaka bi mais changel cappal daggal keppal sexal waaye bis boo sexee daal di romb gémmiñ daa ne nopp tey attention yaaye ñoo ko ci ki la indi woon ginaar gi da xool ba jàgg day dem ne patron bi y'a un euh, un monstre mu ne <laughs> wéyla mu ne mu ngi xoolal yàpp bi fu mu koy dugal ci nopp bi wala nga romb pomme de bi jël ko ne da dugal ci bakkan yi ñu ne li la ngay noté il faut ma changer quoi chaque jour fii chaque jour fii mais te il faut ma changer. repas moom ba boo ko ci bët ndax boo ko ci dugalee di nga sël mucc gis ngeen yàlla yàlla lu mu dem noonu ko moy xakim baatu xakim rek laa leen bëgg wan pour ngeen xam lan mooy xakim mooy lu mu def kenn mënu ko dindi. fi walaqad makkannaakum fil ard. summa sawarnaakum summa qulna lil malaika allah yàlla dafa lu ndar yàlla lim xool yàlla lim ñu bindee moo tax doomu aadama bi mu weddee yàlla yàlla di ko xool ba caag ne ko yaa ayyuhal insaan mu ne ah mu ne ko maa garraka bi rabbikal karim lan moo la jay ba nga bàyyi sa borom bu tedd bu màgg bi maa gar di yàlla ay garraka lu la jay ñu ne ah mu ne bi rabbikal karim ba sa borom bu tedd dafa yem mu ne allazi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakab kooku kooku jaar yow fii jëlee la ci ndox nekk-nekk man niyu ci ndox moo xam ne dafa salte ba ku mu taq sa yére boo xëyee suba noo koy def fóot bu taqee sa yaram sangu bëggoo kenn gis ndox moomu ndox moomu sax ni ngay def ba ba muy génn bëggoo kenn gis la xanaa nga nekk ku jëm jahannama nga naan filmer leen ma nañ ma filmer ndox moom la yàlla jël fan la génne fu ñuy tuure ndox bi muy génn ci góor bi muy génn ci jigéen fan la génne fu ñuy tuure ndox moo tax yàlla mu ne maa in mahin ndox mu doyati waaw allahu akbar ndeysaan wallahi amul place day jékki-jékki génn xoolal leen ak moom yàlla ko utal place yaltaqiyaani baynahuma barzaxum ndeysaan yooyu yëpp amuñu place mais day génn te amul place xoolal benn ak yàlla utal ko place ba pare yàlla ne la maa in mahin tey soo ma bañee jaamu maa ngi la bind ci maa in mahin te ndox moomu laa jël fa jaalnaahu fi qararin makin ma dugal ko ci place bu am sécurité ma dugal ko ci ci ñetti lëndëm fii zulumati salaas ma koy changé étape par étape di ko changé par 40 jours ba judd jot bi judd jotee doom war a génn waa kër gi kenn mënu ci dara ndeysaan yaay tëdd di bërëngu kan ma fi am soxna ci biir jumaa ji am nañu fi am soxna kan la ci yéen soxnaam ndeysaan toll ci mag di waaj am doom ndeysaan ci biir néeg bi day dootul mën a toog dootul tëdd dootul toog léeg mu ñëw jàpp la naj la yaakaar ne day dem sa yaram bi nga ko mu ndeysaan muy yuux ndeysaan yow sax jamono boobu yow sax tamit da ngay matu rek moom day matu ngay matu ngay solidarité ndeysaan ci métit bi ngay muy dem ngay dem ndeysaan bu taxawee nga ñëw jàpp ko bu onkee yuuxu nga jàpp mu bës su la jàppee bës la yow it nga jàpp ci bant bi bés baa nga jàpp ci lal bi bés sonn nga mënoo ci dara nga ne xaaral ma dem luyu ci oto yàlla mu ne demal nga jël euh, mu ne la demal nga jël oto su ma si la dewal nga dem arrêté taxi foo jëm hôpital ñaata nga ne ko nan dem rek loo fayee bu baax na nan dem nga jël duggal nga ñëw waa hôpital ñu ne mat bi ñoragul na toog fee ba mat ah lu tax génne wuñ ko yow sonn nga indi nga ñoom mënuñ ci dara ñoom it ñu ngi nii toog ndeysaan ndaw si ndeysaan di onk foofu naan yaa latiif lay ndeysaan benn jigéen bu buñ ma doon wax muy onk naan ay yàlla ay yàlla ñëwal bul yónnee ay yàlla ñëwal bul yónnee yàlla ñëwal bul sas femme ne ko bu yónnee nag foofu kenn du wax kenn yàlla rek yàlla ñëwal bul yónnee dégg nga ndaw si ay yàlla bul yónni kenn xoolal wóoluwul kenn moo bu ñu yebee yàlla rek ci nii la bu yebee yàlla rek mooy nii la dara jotuñu ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu mais bu mettee yàlla rek yàlla tiif yàlla ñëwal bul nii jigéen ñi am doom bu yëngoo première yëngu matu ñëwagul foo mu dem deuxième allahu akbar su ko defee akbar. gis nga de. mal qaari'a. akbar ñetti fëgg yi. benn yoon. ndeysaan dama nga toog lañ la dama nga toog. ñoragul motagul dama nga toog. ndeysaan. waaw. allahu akbar mm-hmm. ndeysaan gis nga nga dem soo demee ñoom tamit ñu ne la toogal jotagul yàlla nee na maay toog ba mu neex ma ba ma xam ne ñëpp sonn nañ kenn mënu dara kër ga mu bàyyeekoo médecin yi papa ji moom mii mënu ci dara ndax moo ko ëmb tamit ngi nii yuux yàlla daal di joxoñ liir bi ne ko uxruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil ma'bud su suma sabila yoon bi yàlla nee na yassarahuma yombal ko mu ubbi cër yi xam ngeen yoon boobu nit jaar judd bi mu juddoo ba pare bu ñu ñëwoon dañ koy delloo musibaam liir boobu liir bi fi mu jaar judd xool leen liir bi nu mu toll léeg-léeg nga am doom ñaata kilo ñu ne la 4 kilo kan ñun bi moom mën a lekk 4 kilo ceeb ñu toog ba mu teg ah 4 kilo yàpp ko fi mën a jeexal yu ànd ak ñeex beeg pomme teer beeg lépp ndànk nag da ngeen a war ndànk yax la aha kal ihmil wallahi mu ngi loolu te yàlla moo ko ubbi summa sabila yassara yàlla nee na maa yombal yoon bi doomu aadama bi ñëw ma tey rek lañ yab yàlla tey tey tey te foofu jë bi rek jë jë mooy ñëw rek jàmm am jë mooy ñëw rek jàmm am su jë ñëwul rek musiba su loxo génnee da nga dégg ñu ne danger su tànk génnee danger dañuy dugalaat biir bi wala ñu yóbbu opéré ji jërek moo tax si jóot uxruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil maabud liir na put daal di dóor jëbi bi mu juddoo ndeysaan déggul benn làkk tukulóor la papaam ak yaayam ay tukulóor lañ kii séeréer la kii njaago la kii joolaa la kii kii kii ñu daal di jox liir bi ween ku ko ne muucul mu daal di bi muucoo ku ko ne lii meew la wannal allama al insana ma lam yaalam yàlla mu ne min bayni farsin wa damin labanan xaalisan sairan li sarabin diggante soow ak deret ma freiné deret soow di génn liir di muucu di nàmp ndeysaan dem leen ngeen jël lañ set wala paaka ngeen xotti ween lan moy génn deret kon fu soow nekk ci biiru ween yàlla nee na ma téye deret bi soow mi di génn tey yow ba bëggee soow woor nga ba ngoon nga bëgg seew nooy def da ngay jëndi boo jëndiwul nu soow boobu tudd soow bu saf suukar boobu ardo boo bëggee ardo demal nga seet ndax dinga bëgg am ardo foog nga jënd jaay ma cent franc nga ko jaay ma pot bu mag bi liir bi nag moom ci jamono tàngaay yàlla day seddal soow mi ci jamono seddaay yàlla daal di koy nuggal ñaari mbuus bu bi jeexee mu ne jox leen ma bi ñu jox ko xoolal yàlla nu ko préparé munoo lekk yàpp munoo lekk mburu munoo lekk ceeb ñu indil la ñaari mbuusu meew ngay naan te doo jëndoo te fi mu nekk nii sa papa bu buggee soow day jëndi sa yaay bu buggee soow day jëndi sa mag bu buggee soow day jëndi sa nijaay bu buggee soow day jëndi sa maam bu buggee soow day jëndi yow yaa ngi nii di naan soow te jëndoo est-ce que ñun sant nañ yàlla sant ñu yàlla loolu rek nit mënu ci fay yàlla mais moom nga nàmp ba ba ngay fer munoo sa soow munoo fay yàlla ñun sant ñu yàlla wa ma qadarullaha haqa qadrihi màggalu leen yàlla dëgg-dëgg nu ngeen ko war a màggale gis nga alxuraan wa ma qadarullaha haqa qadrihi tegu leen yàlla fu ngeen aaya yi ñu doon jàng xam naa ne juróom juróom benn mbir lañ ci war a jëlee wala juróom benn est dina mat bu njëkk mooy ngëneelu fadlu istihaami bi nafs fi binaa il masajid yàlla dafa bëgg jullit muy tabax bu amee alal muy tabaxal yàlla jàkk muy tabaxal yàlla néeg hadis bi ñëw na ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na man banaa lillahi qasran aw baytan man banaa lillahi baytan bana allahu lahu qasran fil janna képp ku tabaxal yàlla benn néeg yàlla dina la tabaxal château biir aljanna ku tabaxal yàlla benn néeg man banaa lillahi masjidan bana allahu lahu qasran fil janna kon dañu bëgg boo amee est-ce que xam ngeen ne leneen loo tabax leneen loo def lu dul tabax néegu yàlla loolu dañ la koy doon nu néegu yàlla dong lañ la dul doon leneen loo def mën ngaa am tiyaaba mën ngaa bañ a am tiyaaba waaye jàkk boo deewee jàkka ji nekk ngay dund jàkka ji nekk nga tukki jàkka ji nekk nga wér jàkka ji nekk nit ñi di julli ngay am tiyaaba tiyaaba di jàkka du jeex tiyaaba teen du jeex tiyaaba dispensaire hôpital du jeex ndeysaan moo tax gis nga nit ñu baax ñi ñoom ñëpp lu ñuy njëkk a tiitaroo mooy bu ñu dëkkee bala ñuy tabax kër tabax jàkk yonte yàlla Muhammad bi mu ne cëpp balaa muy tabax këram lu mu njëkk a tabax sax dañoo sori Serigne Touba li gën luñ koy xàmmee Touba lan la jàkk jumaa ji Cheikh li gën a rëy liñ koy xàmmee lan la jàkk jàkk mooy place boo xam ne boo ko defee saye yow 24 heures sur 24 tiyaaba def lay yaa ngi dund yaa ngi dee ak su àdduna mooy kaaba gi waaw baytul mahmur Ibnu Alfu Malik allahu akbar te ñooñu ñooñu dugg fa tey dootuñu duggaat allahu akbar te bis bu nekk loolu nombre ndeysaan aha kañ ngeen commencé def lii yéen malaaka yi di dugg ci néeg bi allahu akbar te ba léegi mu ngi am nangam ci ay junniyaat kenn bindagul aadama ñoom malaaka yi ñuy def lool ba tey jii ñu ngi koy def te ñaari néeg yooyu communiqué baytul maamur nekk ci kaw kaaba gi nekk ci suuf ñaari néeg am communiqué waaye am na beneen bu nekk fii ah booru Yoff loola nee nañ baytul maamur moo ko tiim comme yéen waa Sénégal moom da di concurrence waa Màkk bu ñu amee zam-zam ngeen am zam-zam bu ñu amee tàndarma ngeen ut tàndarma bu ñu amee safa maro ngeen ut safa ak maro bu ñu utee kaaba ngeen ut kaaba bu ñu utee lu waaw léegi ñee am nañ kaaba am nañ bayt yéen demi bismillah am nañ baytul maamour fii ci wetu géej am waaw yoneen dañuy concurrence lu ñee am ñu am ko leen rek waaye ne di ngeen xam ne roy du nuroog roy original <laughs> zam-zam ak kireen duñ benn de ak fontaine du benn euh, ñaareel mooy al muminul fi diinihi yafalu lxayra wa huwa an laa yaqbalu minhu fa yasalu allaha taala wa yatawassal ilayhi bi asmaihi wa sifaatihi an yataqabbalahu minhu jullit bu baax bu am gis-gis ci diineem lu baax rek lay def waaye jamono bi muy def lu baax day ragal di tiir di ñaan yàlla ay maa ngi def lii de waaye yàlla nanga ma ko nangul yàlla maa ngi woor yàlla nanga ko nangul yàlla maa ngi julli yàlla nanga ko nangul yàlla maa ngi maa ngi naafila yàlla na nga ko nangu yàlla maa ngi lay tudd yàlla nga ko nangu yàlla nga ngay tiit di yaakaar di am waaye wala ñun dégg naa benn baat ci Sénégal xaw ma ndax yéen dégg ngeen ko Sénégal li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk dégg li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk bu yàlla xeebee ñàkk ah. waa léegi damay laaj lan moo nekk Sénégal ba yàlla di ko xeeb lan man de léegi dégg naa te dégguma ko ci ñu ndawa ah. ci ay ngand dégg ay ponkal ñu ne li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk moo seen réew mi lu fi nekk moo lan ngeen ba yàlla di ko xeeb ak di ko di ko naw moo lan ngeen def seen julli yi sellul neexul li Yunus naan jàng alquran fukki kaamil téeméeri kaamil mu ne jàng bi seetlu neexul ñi koy wax dañ koy wax rek di raatale xaalis bi di yóbbu seetlu neexul seen jàng yi xam ngeen ko xam ngeen li ma leen di wax seetlu neexul su guddee yenn saa yi damay tëdd sama kër dégg benn côté ci jumaa yi ma wër ñuy naafila mais doo dégg alxuraan bi keroog ma ne sama soxna waa kii lu muy jàng mu ne yaa ngi koy doog a billahi benn jàkk bu ma wër loolu la ñuy ñaan allahu akbar allahu akbar inna lillahi li mooy alquran lan la yonent bi wax zeyyinul quran bi aswatikum démb bi ñu tafsiré bara maa ngi jàngal fi benn mbokk hadis laysa minna man lam yataxanna bil quran bokkul ci ñun kuy jàng ko bokkoo ci ñun bokkoo ci islam bokkoo ci yonent bi nee na bokkoo ci man ku yonent bi ne bokkoo nag bokkoo ku la bugg a bokkoo ku bugg a bokkaloo kooku bokkul ñetteel mooy masruiyatu sualullahi linnafs wa zurriya assabat ala al islam hatta al mawt alayhi gis ngeen ni ngay ñaanee yàlla pour yàlla saxal la ci diine bul fàtte sa soxna bul fàtte sa doom bul fàtte sa njaboot del wax allahuma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik da ngay julli di fàtte say soxna di fàtte say doom ñaanalal yàlla ibrahima dafa dugal ñëpp ibrahima waxuma la doomam waxuma la soxnaam waxuma njabootam waaye dafa ne ummatan muslimatan lak yàlla yal na nga def sama xeet yépp ñu nekk ñu la jébbulu jullit noonu lay mel dangay ngay ñaan yàlla ñaanal njaboot ji waaw doom yi jarbaat nga ñaanal leen ndax ñu nekk ci raay bi waaw rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina qurata ayunin waj'alna lilmuttaqina imaman rabbi ij'alni muqima salata wa man zurriyati rabbana taqabbal waaw loolu la jullit da ngay ñaan yàlla yàlla may doom ju baax waaye am doom ay doom ay man bu ma juddee ba am doom ay man bu ma amul doom doom doom nga am doom mu poñe la yano ba ci kaw ne la mère mère est que doom jooju ñaan yàlla bi ñaan yàlla jar na kon ñaanal doom ju baax soo déggee doom am na njëriñ mooy daa baax de waaye doom juy mbëkki xam ngeen ne doom jooju moom amul njëriñ ñeenteel mooy wujubu taalim manasik alhajj wal umra ala man arada an yatahajja aw yaatamar mbokk yi juróomeel ñeenteel mooy nit balaa muy dem màkk na jàng balaa ngay dem umra na nga jàng waaw xam ngeen tey la lan moo tax nga ñëw ne waaw euh, ana àllaaji ñu ne dem na stade moom de dem na ca làmb jëm ana àllaaj dem na super ndaje ana àllaaj dem na organisation Miss Jongoma ana àllaaji ma nga ma nga grand place ba ma ngay dem yi kooku du alhajji alahaaju la on wana alhajji ko alahaaju kooku dafa jàng jàngul balaa ngay dem màkka jàngal nan la ñuy jaamoo yàlla billahi wallahi wa taalahi yal na leen yàlla dimbali ba ngeen ànd ak waa réew mi aji di nga gis loo xam ne soo ñëwee di ko nettali nit ñi nit ñi ne nit ñi dinañ wax ne du dëkk fekk wallahi yaa ko gis ak sa bët ci ay nit yoo xam ne xamuñu dara ci mbirum aj xam ngeen la moo tax ñu dem màkk bëgg a bokk ci association ajaratu ak association àllaaji ku ñëw changé sa tur àllaaji Moussa boo ko waxul àllaaji mu ne gis nga diw ku iñaanu la seetlu naa bi ma demee Màkka ba ñëw ba léegi Moussa la may wax rek musuma wax àllaaji gi dafa soxor il est méchant cet homme là il est méchant musuma wax àllaaji <laughs> yonte yàlla Muhammad dem na Màkka wala demul Màkka damay laaj aji na Màkka est-ce que dégg ngeen ñu ne àllaaji Muhammad Aboubacar dem na Màkka wala demul Màkka dégg ngeen ñu ne alhaji aboubakirin siddiq radiallahu anhu wa ardaahu qaala dégg ngeen loolu ci hadis waaw fii ab sénégalais bu dem rek boo ko newal alhaji gis nga da nga gis sax ku dem changé carte d'identité police commissariat ñu ne ah la damay changé sama carte d'identité ah lu xew dafa dama <laughs> ci alhaji Moussa Thiam alhaji Ngor parce que dama aj ba pare nag takk ay bu ñu war waaye rek <laughs> pour ñu ne dem na maag ñun loolu rek moo tax ñu dem maag loolu kese kese kese dem naa maag kese kese loolu kese ndeysaan da ngay gis ndeysaan xoolal billaahi benn waay boo xamante ne xam ngeen maag bu ngeen demee ay hôtel la ay kër la ngay nekk ci kër yi bu julli jotee nga dem waa ji day nelaw ci kër yi bu julli jotee ñu yeew salaamaaleykum mu ne lan la ñu ne ko gaa yaa ngi dem kaaba rek fardi aujourd'hui bu ma kenn yeewatee ah. ma fardi màkka la ñuy wax fii màkka julli màkka la yéen da ngeen a da ngeen kenn yeewatee ma ah, wax naa leen ko nag ah, kenn waa ji noonu lañ ko bàyyee kenn du ko yee saa ji jeexaan kenn du ko yee day nelaw ba du ko neex yow sangu julli fajar muy julli julli allahu akbar du wax ci kaw nag ba ñëpp ne ko yàlla baax na ba nga mënum mënumee mbir mi xoolal rek nga nekk dem ba nit ñi di julli ji kaay ñu julli ji nga ni màkka màkka la foo julli baax na da ngeen a ëppal da ngeen a ëppal ndeysaan keneen gi da dem ñe da sànni juróom-ñaari xeer benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn mu guub yëpp sànni man de sama ñëpp laa jël yëngal ba mu yëngu ne ko ndullu iblis ñu waaw juróom-ñaar yëpp laa ko dóor ñu ne ko subhanallah mu ne subhanallah la la du dañ koy sànni kese sànni naa ko dal na ca miir ba jeex na da ngeen ëppal man nekkuma fanaan benn ñaar ñi da ëppoo ma jot lu la yóbbu lu la yóbbu da ngeen koy jàng xam ko soo demee nga def ko ni la yàlla waaye place bu ñu ne dañu fay taxaw nga taxaw place bu ne dañuy toog nga toog place bu ñuy wër nga wër place bu ñuy julli nga julli place bu ñuy fanaan nga fanaan da ngay ñu ne la gis nga Musdalifa dañ fi fanaan kenn du fanaan sénégalais yi duñ fanaan Musdalifa te dañ naan xale yi ak jigéen ñi nañ ñibbi ak màgget yi ngand ah gars yi man damay ñibbi de gars yi moo fi bàyyi fii man mënuma doon de damay ñibbi ko déet nañ fanaan mu ne oustaz di fanaanal rek dana la yàlla nangul waaye ma dem bu ma fanaanee fii kaay bi ñëwuñ bu ma doxloo ko déet fii yonente bi fanaan mu ne yonente bi nga wax nuru maa ngi yonente bi gis nga yow mi munoo egg ci moom munoo egg ci moom noppalul xoolal loolu lay munoo mel ni moom nañ dem inna lillahi wa inna a baax te ànd ak waa dañ lay découragé au lieu ñu góorgóorlu kon nit li ko war mooy mu jàng nu ñuy aje jàng bala nu ñuy umra pour nga doog a dem dem naa ak ak ànd naa ak ay nit ñoo xam ne ba léegi nii dañ may woo téléphone ay paa yoo xam ne lam malaan sax mënuñu ko sas ñu kanam dama leen laaj ban aj ngeen di aj xam ngeen ñetti aj moo ñetti façon aj moo ban ngeen def ñu ne ah ban la ñuy def yow ban ngay def ma man bii laay def ñu ne boo def la def bu ñu ko laaj ñu topp sa ginnaaw waxal ci kaw ñu dégg ko nag dañ lay naj ba sa biir bi daw ay buñ la jàppee doo rëcc de guddi gi njëkkee dugg ci kaaba gi samay dàll fa la des sama téere fa des sama sama sama lépp fa la des ndax jàpp biñ ma jàpp ndax du ma mën du ma a defar waat sax dayre ñu ne dinañ la ko defaral lan la may samay daal ñu ne ah daal yére dem na moom sama téere war dina ñu ne nañ dem waxal ñëpp ko dañ lay na junni nit téye téye boo ñibbisee doo sax mën a julli doo mën a dox di kenn jàngul kenn xamul kenn mënul loolu mooy sunu problème dañuy jàng gis ngeen yeneen pays yi dangay ngay inscrire boo waree dem Màkka da ngay inscrire juróomi at di jàng juróomi at ñu lay jàngal ba ñu xam ne mën nga ñu war laa dugal bi dugg ci kaalu gi fekk ñuy wër rek mu ñëw dugg gars yi di wër rek na la ñu noppaloo rek ma noppalu bu gars taxawee ma taxaw bu ñu toogee ma toog bu ñu wëree rek ma wër dañuy jéem a gëree gëree lu dinañ xam ne man nga ni ñu ma man wér këng laa def muy wër di wër gars yi di wër muy wër fekk juróom-ñaar ku am juróom-ñaar day génn pour moom nag ñiy wër ñoom muñ kese la muy wër di wër di wër ba jàng mu ne këndëng xam ñeenu yóbbu waa góor gi yow lan la mu ne sept heures laa fa dugg sept heures ci bool lépp maa ngi wër rek damaa wër ba sama tànk yi néew yi kenn dàqu maa wër ñu ne ko du noonu mu ne ah, du noonu mooy waxi la xanaa du la rek gaa yaa ngi wër kenn taxawul nga naan ma du loolu juróom-ñaari yoon la lu juróom-ñaari yoon ñii wër niir ki kenn toogul ñu ne ko déedéet ñii dañuy dugg ñeneen ñi génn génn wër bi du arrêté wër bi du arrêté abadan boobu du mësa du mësa mu ngi mel ne aiguille rek bul ñaan yàlla sa aiguille montor taxaw de bu boobu noonu la mel nii rek gis nga noonu ñuy wëre kaabe gi noonu la góor bu amee ak ja soxnaam rapport ah pour doom ji dugg ovule yi noonu la ñuy wëree sperme bi noonu lay wëree ruuxu mu ndaw si pour dugg noonu ñu koy wëree te ni ñuy demee côté bi ñu tàmbalee di dem noonu la ñuy tàmbalee sens bi ni ñuy def rek noonu lay defee ndeysaan allahu akbar noonu la ñuy demee noonu noonu ñuy wëree kaaba gi noonu la ñuy wëree noonu la sperme bi di wëree ruuxu mu ndaw si su benn duggee rek beneen dootul dugg su ñaar duggee mu nekk ñaari seex yu nuroowul su benn duggee ñu tànc ko mu nekk ñaari daggit mu nekk ñaari seex yu nuroo xoolal yooyu yëpp yàlla tànn ci ñaar wala benn bu yàlla dugaloon yëpp kon ndaw si du mën rek du day dee parce ay junni ëpp na ko ay milliards yàlla jël benn kon kay yàlla moo njëkk a organiser planning familial kon yow jarul ngay planning li la yàlla may xam na ko loolu yëpp bu ko fa yàlla defoon nga dem àllaaxira noonu la àddina bi di dawee euh, suuf si noonu lay tournewee hmm? ndeysaan wa kullun fi falakin yasbaxuun wa samsu tajri li mustaqarin laha zalika taqdirul aziz baat baat bi ma leen doon wax sànq ngoog alim nga loolu sax yàlla mu ne alim boroom xam-xam moo ko mbokk yi juróomeel mooy wujubu talabu tazkiyatu nafs doomu aadama dafa war a ut luy setal bakkanam wal amalu saalix wa tahzibil axlaaq nga rafetal sa jikko bil ilmi wal xikma ci xam ak xereñ juróom ñetteel juróom benneel mooy masruiyatu tawassul ila allah bëgg nañ doomu aadama def lu baax ba pare ci lu baax loolu mu def mu def ci tawassul yàlla comme ibrahima dafa tabax kaaba gi ba pare def tawassul julli def tawassul naafila def tawassul jàng alquran def tawassul saraxe def tawassul yàlla maa ngi nii di saraxe ñaar téeméer ñaar téeméer yi nag yi ma ci bëgg mooy nga may ma bag maa ngi nii di saraxe ñaar téeméer ñaar téeméer yi li ma ci bëgg mooy nga nangul ma sama koor maa ngi nii di saraxe paquetu suukar paquetu suukar bi li ma ci bëgg mooy sama jabar na baax sama loolu mooy tawassul da ngay def lu baax ngir ñaan yàlla ngir lu baax loolu nga def yàlla daal la ci defal mbokk yi wa rahmatullah suba tafsir amul